bari ko yego we dari ko ali dan ya ko ko ko ko ya ko ko no en da ko ko ko ko ko ha di da di di ko ko ko ni rahmu ko ko ko ni da ko ko ni da ko ko ko ni da ko ko ali dan ra dari ko yo ko ko ko ko ya ko ni ya ko ni yo di ya ni ko ko ni laaj yooyu yële di yàlla moom ak laaj yoo xam ne laaj yoo xam ne su ko tontóor ak ñoom xam naa ko ñu dugal laaj yooyu gën a tey yi ba ba ñu laaj la dëkk nit la te saa na doon doon dëkk ñoom ñu nit la wax laaj yooyu gën a yëg yokk sa yëg ko ñoom ci saar yi di seen xam-xam yi gën a ñu gën a dugal ak ñu daal di wàcce aay bi yaakaar yi alif laam raa bi laam raa alay bi ñaari waaye ci ci ra ay ko ci tañu alquran al mujin dara bi dum ko ko maana ko ni am ko ma wa ko ni dum alquran quran alquran ala bi ni ko yaaram yalla wa ko alquran ila ko yaaram wala ko lahmi rabbi ni nak wa ko ni dum ko ba ñëw indi kese yi ci gën a ñëw ñëri. alquran quran alquran arab yan bi di bëgg yaaram. yàlla wàcc na alquran ci lakk yaaram. daanaka ndax li ndax li yéen ñu màkk. ndax dina ngeen di maanaam la. ba ñëw indi kese yi ci gën a naan ñun. màkk su gën a ñu solo. allé ko ci yow. ah kon xas na fi gën jarale ci solo. maa ngi ñetti màkk sa boo xam ne mboolem kese yëpp. moo ci gën a rafet. mënu tax. kese yi su fa yàlla tuddee ko affaire yu xasa si. ne moo gën a rafet ci kese yi kese la boo xam ne mbooleem mbir yu rafet ñëpp dajale ci mbiram Yuusufa fexeem noon yàlla dimbale ka nga xam ne dañ ko fexeel kañaan ak kuñ xañaan ku sopp ak kam sopp ak sëy ak dugg kaso mos njaam gannaaw ba nga mujj di buur ak tefanti ko gu yàgg gannaaw ba jokkoo lépp ko am na ci pexe Yuusufa moo tax bi mu lamboo bunti bunti pexe yëpp yàlla tudde ko ne mooy asalu xasasi wala boo tudde nañ ko asalu xasasi ngir daan ngir Jibril mi nga xam ne moo wàcce xisa bi moo gën a rafet ci malaaka yi alquran bi ne nekk na kese bi moo gën a rafet ci téere yàlla yi Yuusufa mi nga xam ne mooy borom kese bi moo gën a rafet ci yonent yëpp gannaaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ni ko wàcce ci moom moo gën a rafet moom mooy njëkk ak mooy mujj bi nga xam ne nag ne di wàcce kese beeg ki ñu ko wàcce ci moom ak borom kese beeg téere bi kese yëpp bu ci ku ci nekk moo gën a rafet kon kay mën nañu ko tudde ne mooy kese bi gën a rafet tudde nañu soo si Yuusufa ahsanul qasasi ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko ne ko ana ku gën a tedd ci nit ñi mu ne Yuusufa mu ne ku gën a ragal yàlla ñu ne ko laaj ñu loolu mu ne Yuusufa yonentab yàlla doon Isaaqa yonentab yàlla Yuusufa yonentab yàlla doon Yaquba yonentab yàlla doon Isaaqa yonentab yàlla doomu Ibrahima yonentab yàlla xaritab yàlla kookoy kërim baayam di kërim maamam di kërim maam taaram di kërim kooko gën a tedd ci nit ñi ñu ne ko laaj ñu loolu ba tey ah mu ne jii di yaaram yi ngeen may laaj ñu ne ko waaw mu ne ku mas a gën ci kéefar rek bu lislaam yooyu yaay gën su fekkee jàng nga ba xam de ñu gënoon démb ci kéefar mu ne ñoo gën tey ci lislaam de su fekkee jàng nañ bimaa waaye naa ci leen woy yi nekk jëm ci waaye alquran a jëlee alquran waaye ni ko nga naka nekkoon nga min qabli yi jël jëkkam la min qabli na ci way sa gën a ñëw xisa bi ma lay jàpp maa ko wàcce ci yow waaye xamu la ko woon de uskur jàngatal is xaala ba waxee yusufu yusufu di abi ñaal baayam yaqooba ne ko yaa abati yow baay umi na kaman raay su gént na ma aada asaba fukk ak gann gann fukk kaw kaban ci biddiw wa sam faj jant bi wal xamara weer raay tuuti gis na ma leen saa ji dinañu di wër di gërëm di ñaan ma mu ne man day bàyyi dama nelaw di gërëm di gis fukki biddiw ak benn ak jant la weer wi dina si jóge dana am waaye dana xaw a tëskare rek xaare mu ne yàgg na yeewas doom sama laa tax mu bugul solo ruyaata gëwëntu saa laay ko ci ko ji mbokk sa fee ci doo ba danañu fexe lakk ñu ne la kay leen fexe mu ne ko gëwëntu googu bu ko kenn dégg mukk mukk mukk doom bu ko sa doom yi dégg sa doom bañ dégg ndax xam nañ ci réem daañ xam ne biddiw yi ñoom la jant bi sa yaay la weer wi man la ñun ñëpp dañoo ko xew si gëm di la si jóotal waaye bu ko nit dégg mukk mukk buñ ko déggee daañu la ci dema rey rek dina seytaane ngi naka seytaane adduwu noonu la mu di di di noonu lim taane ñeen nit xamal ne seytaane dafa bëri ak noonu ci doomu aadama boo ko saali ko kem ni nga diwante i tabi ka lay tànn la rabbu ko borom sa wayu alima ko tam xamal la min taawi la aji ci birim diwante wayu ci matam matam nematoo ke wala ma lay ci yow ba jox la diwante wala ali yaqoba ak suñu yaqoba tama tama nam naka nam matale woon ko ala aboo ko ci ñaari baay sa min xabbi jëg jëkk ibrahim ibrahim mooy saaxaa ji saaxa ina bëgg na ko borom sa di ma ji xam na mu mbindee foofu ak ci ma ji xarañ na mu ci ñëpp foofu ne ndekete yow mi nettali yéen ci baayam nag wu ci ndey ji fi fanaa noonu mu ngi koy dégg mu daal dem nettali ko doom bàyyi rek yéen ñu su na jënt na ay digg di ko ci jógal ak jënt bee weer baayam na ne ñeen la ak moom ak yaayam ñu daal di ko nañ nañ ko sakkal pexe léegi laqat kaana nekk na fi Yuusufa ci kisa fi Yuusufa way ko ci mbokkam ayaatu xalam Israayiil ñu ñëw way laaj ñëre suñu nettalee kisa fi Yuusufa ku nekk dana ci mën a waaroo de bu xaaloo bañ waxee la Yuusuf Yuusuf waaxoo mbokkam Benyaamin ah bu ñëw dana ko kuy daal ñëw mën ci bàyyi mën naa ci ñun ñu daal di ne ñun dañoo gis sax na Yuusufa moom la bàyyam gën a bëgg ci ñun gannaaw Yuusufa rakkam Benyaamin ci mbokkam lay wanam ñu mos bëgg mbooloo lanu dinaa baal anaka bàyyi suuf la fi Ibrahima ji nekk na ci njumte wu jiwu bi daa ji dig suñu bay daal dafa juum Yaqooba am na ku ci doon ak ñaar Ruuben bi samoon na yow daal daal di rabaloo na Yasjuru ak Daani nag Naftali ak Yusufa ak Benyamin Yusufu Yaqooba bu mat yaa am jabar dafa dem ci nijaayam ne ko may ma sa doom doomam mooy Rahil mu ne ko sàmmal ma juróom-ñaari at soo ma sàmmalee juróom-ñaari at mu may la ko mu sàmmal ko juróom-ñaari at mu may ko mag yi ci ci mu doon nopp naka la ko gis ñëw ci ñu jaayam ne ko xuruj ndama ci ma doon nobaan du fii mu ne ko suñu aada daal ci ma doon nobaan du fii mu ne ko suñu aada daal duñu maye rek te maye duñu nopp moo tax mu may la fii waaye sàmmal ma yeneen juróom-ñaari at mu may la rek te jóge boole daganoon na ci seen sori at mu sàmmal ko yeneen juróom-ñaari at mu may ko raayel ku ci nekk mu may ko jëwër ñu ñëw sëy si ci Yaqooba ñi nga xam ne moom la ñu mooy mooy aaw bi jib naag moom juróomi doom ñaari jëwër yi ku ci nekk jibal na ko ñaari doom ñi nga xam ne mooy aaw bi jib na juróom benn doom ñaari jëwër yi ku ci ne jib na ñaari doom raayum nag moom Yuusuf rek la jur ak Benyamin muy fukki doom ak ñaar Yaqooba am na fukki doom yu jur ak ñaar ñeent ñi doomi taara lañ ñaari ñaari doom yi ndey tax lañ Yahuda yaayam ak yaay Yuusufa ñoo bokk ndey ak bàyyi ni ma leen ko nat leewoon yaari bokk la boole ba nga xamee nag ne Yaqooba yi lu tax ñu tudde ko Yaqooba mooy Yaqoob bu jiibiri ak ji mujj yaayam daf koy ëmboon mu di suyet moo xees ñoo suuxoo ba nga xamee bëgg nañu juddu yàqoo ma juddu bëgg a juddu xees ne ko boo ma jëkkee juddu rek ma dara nga gis ma fii dem day suñu yaay dee rek soo ma jëkkee juddu rek wala ma rey suñu yaay bu ma tax ñu ko xees juddu aju mooy bëgg ngeen a wàjjib xaar te juddoogu yàqoo ba ne ko bëggay suñu yaay man man naa la ma yoon nga dem juddu xees jëkkee juddu yàqoo ba topp ci moo tax ñu ne ko waa ne di topp ba nga xam ne màgg nañu Isaaqa xeex la dana bëgg jëmu bés Isaaqa ne xeexu yonent bu nekk yàlla may na ko ñaan koo xam ne yàlla du ko delloo ñaan gu nangu man nag ñaan gu ma yàlla may yow laa ko dencal dama rëbbal ma benn ci yéen wàjjal ma ko ba mu ñor ñu ngi indi su ma ko lekkee rek jox la ñaan gi nga xam ne moom la ma yàlla jox yaay ji dégg ko yaay yaay Yaqooba dégg ko te moom itam Yaqooba la gën a bëgg mu dal jant Yaqooba ne ko gaawal yow yaa ngi say gàtt rayal gàtt léegi nga wàjj ko ñëw ko sa baay ndax nga jël ñaan gi balaa nga soo di ci moom mën nga rëbbi Yaaquba daal di rayal gàtt wàjj ko daal di ñëw rek indil ko baayam ne ko mën a ñëw sa doom yi ñaare la ñu ma waxoon Yaaquba di lekk sama ah kata ñëw si kata Yaaquba day moom ay xasew wala si ma xana mu ne ko dee mën a ñëw si sa doom jayal ma làmb fekk mi ngi solab der pour bañ ñu bu ko làmbee xam ni ko muy làmb naa ah waaw daal kata ñëw si kase mu ne kase kata Yaaquba may xasew mu ne ko bàyyi lekk rek mu lekk ne ko yàlla yàlla def ak yeneen di ci fay sët gis nga yeneen ci yëpp seen benn wàll yëpp ci ñu ko Yaaquba la jóge ba mu lekkee ba noppi nag ba Yaaquba jël ñaan di jeeg insisté nañu rek aw rabam wàjj na mooy ba mu yor mu indi ne bàyyi rab yi ma waxoon na fi mu ne ko di yaatu ne woon tànk mu ne dee mu ne ko ay ay dikk na kon Yaaquba jël na ñaan nga de waaye ba tey des na yow itam ma ñaanal la lekk na ko yow itam tey doom yàlla na yàlla def ci ñoom doole ak pexe ak xam-xam ak bëri mooy li ñu gis laa bi. Europe yëpp ñu ngi seen yëpp lañ bàyyi ko ñu ngi fee seen doole seen pexe di ñu dëgër ba léegi waaye daal ñu ngi leen Yaaquba dem na ak ñoom ba nga xamee ne Yaaquba am na fukki doom ak ñaar yooyu nag ñu si woon itam dañoo ndawee gannaaw ba Yaamin moo gëwante gëwante bii de gis na daal ay mbokkam. ak ndeyam a baayam yëpp danañ ko sujjóotal mbokk yi nag daal di daje ne uxtroo rey leen ñu suufa ñu suufa aw uxtroo ñu suufa sànni ko xarban ci suuf yeex li ñu lakk ñu ne leen wañu waa bi duñ kanam ak bàyyi seen de ñu daal di daje nag ñoom doon bàyyee fukk yëpp ne léegi ñu suufa mi de nañ ko rey rek suñ ko reyee ba suñ daal di dëkk ko kon danañu xool ñu ñu fi nekk walla boobu ñu sànni ko bu mu rànkal ko jàll bu sori ba xam ne lu yàgg yàgg yàqoo yàqoo ba dootu ko gis bu xam ne amatul dootu ko geesu kon dama danañu geesu ñun waaye seen ñu si sànq si yàqoo ba duñu geesu. ba tax ñu da ngeen nekk ñun daal di gannaaw jëf jooju xaw ma ndigal saa yu ne yu ne bu doon yore ñun ñëpp ñu bokk ci dellu ci yàlla rek yàlla ku tuub lu baax la ñu dellu baaxaat xaaral wax xaaral naa ji wax ni ñun ci ñoom te mooy yow daal. comme moo doon seen mag ci pexe te it xam nga jege ñaaleem la ndax yaayam mooy mag yaayu Yuusufa Yahuda ne leen laa tax su dee doon rey Yuusufa Yuusufa waaw te sànni leen ko dafa dafa jublu ko leen leen dem na rek bu leen ko rey su fekkee ni dara desul da ngeen def dara jënd bi nag jënd jaar la suñu ba te même tamit bu rek te bu leen ko rey xanaa moo tax ne daal yan tax ñu bon dana for ko. baabu sa yaara ci benn doxkat kon du ñàkk doxkat bu fa dem for ko yóbbu ko ci meneen réew rek ngeen tàggoog moom rek in kuntum dem nekk ngeen faa dina di way def rek ñu ne waaw kay pexe mango xaalo ñu ne yaa baana yow baasi ñu ne nañu def nag ba jot ci yëf daa nañ ko bëgg bëgg bu ko rek soxla ko ci kanam ñu ñu demit moom du ko xelal ñu ne nañu def ba jot ci yëf nag te bàyyam nañu ñu di tàggoog moom ñu nañ ko laaj suñu baay ñu ñëw ne yaa baana yow baay suñu maalaka ana loolu yow laa taaman naa ba wéeru ngënu ala Yuusufa ji Yuusufa way naata naka ñun la naata woon way laay la ñu ji loo ñu ne ko. moo tax ñu tax wéeru ngënu fexe la Yuusufa mu ànd ak ñun ñu tax ñu di ko laaj rek tax waru leen wóoru. parce que ñu xebal ko maanaam mu ànd ak ñun xadan xelal yor tax mu xaw waaw bu ci wayal xam tam foontu rek nañ ko xebal xelal mu ànd ak ñun tamit su ko defee dana foontu gën a sibiral su ko defee nag xolam gën a fiir moo gën rek mu ko fi tëjee rek di dem fenn way naa naka nun laxaar si sunu wat lañu la wajjumoo ñu ne daañ ko wattu dara du ko jot xaala mu ne leen ñu naka man day suñu ñu nga dana jàqaloo man ko foofu bu ngeen demee at bi rek moom de waa xaar foofu naa ragal yàq loo wula ko fii bi tëdd ko maa ragal na seen ko doo ci xàll ba léegi ko ci lu ci lu fut ko ci seen loxo rek di dee waan tum ko yéen xaas yéen way sàggan yéen ami ci moom xaalo yi ne ko mbay na akala walaay ndem lekk na ko fii bu tibb wanaanu ko nuñ wax ba suñ mbooloo lañu kub ci ponkal ànd ak seen rakk tibb bi ko lekk naa na ko ñu seen boobay loqa suna way lekk lañu de wante nga xam ne ñun duñ fa jajjëral ah yàqoola leen niveau boobu yóbbu leen ñuy yàlla lépp luy ragal lu dul yàlla rek yàlla dana leen ko xiir biñ ne dafa ragal ne ci biir na lekk doomam rek ba mu ci biir wax lii déglu si rek ne ko ci lekk na ko. bala maa baa boo bañu dana di ak Yuusufa waaj moo tey bëgg nag ànd ak yàlla bu ñu defar ko fa daa baati jubbi ba leen tamit ba lëgee bañ demee nag ñu doon ci sànni ko ci teen ba la nga xam ne moom lañ tëraloon ci seen pexe rek Yuusufa nag daal di tàggu bàjjanam ñu daal di ko soloon bugg ni yonent yàlla Ibrahima ma jubli indi leen yonent yàlla Ibrahima ba mu nekk ca safara fa ñu ma jógee naal jàll ñu ko doon denc di ko danoon fefee booba ñu ne Yuusufa moo ko amee te moo yar Yuusufa te Yuusufa rek la bëgg ñu daal di ko génne ca taaj ba ñu ko dencoon daal di ko solo Yuusufa nag daal di ko laxas mu mel ni jënt bu buy dox ci saar ànd ak doom bàyyi rek bañ dem balaa kenn jot ma xamal yonent ba nga am ñeent fukki at waaye Yuusufa moom natt bi ko daal tax na yàlla gaawantu wàcc ci yonent bi xaar sa doom fukki at ak juróom ñaar la am moom la buur di wax daa way naa suñu wayu ñu lay yëngal ci lii yëpp te moom kër gi kàmbar seen ba la ci nag am na moom walaay da nga solo nga am da am réew ci nit seen xaar yàlla ne ko ma xamal la ne xaw doo dee sa doom bàyyi luñ dee lu may ñu jaan jaan laa ñu ma ci nga nekk ñu leen ñu ñu la def rek woon te ñoom laa yaa xaw na xam ci ñu leen ñu rek ñoom xamuñ ñu la xam ne moom la yàlla mën a teew rek ak nga di ko sànni ca kàmbar seen ba dañ def seen yoon nag parce que man dañ def laa rek dañ yaana wajaaroo ko indi kër abaam bàyyi sa ñu saa jegee ñu guddee guddee nag guddee guddee ba nga xam ne jee baax na nag ñu soog a ñëw lépp wala day ñu jooy ba ñu ñëw ba gis seen bàyyi ñu ñëpp nañ jangoo di jooy jooy ñu jooy jooy ñu ñu yàqoo wala nga xew ana yëfu ba xaala ñu yaa baana yow bàyyi sa ñu inaa na kan laab naa dem nañu nastabi ko di sukkate wa xalam naa tam bay yëfu ba yëfu ba ndama bàyyi naa fay maraam sa ñu faakale wata lekk na ko ci ci ci rek dañ demoon waaw bañ demee di sànni ñaan ay xeer mooy sukkate yàlla def rek yëpp yëpp yàq ñu na ko nañu nekk suñu bagaas waaw ci ñu suñu maraam ñu dir ci rek fekk ci ñu jàpp na ko ba lekk ko maanaam te waaye jël yow di mu ñu nga di dëggal danaa ci ñun wala ku naa doon te nekkoon nañu sax parce que nañu dëggal waaye suñu waxoon dëgg sax yow doo ko gëm waaye ñu daal moo am wa jaawoo tañ dikkal tañ dikki alaa xam yi ci lu bëm di lañu ci dara te si biir biir borom yi naaw bu ba mu ci mbiroon nag ñu daal di rey ci mbott parce que rek nga taxal ko ngeen di ba mu yëfu woon daal di indi nag jox ko yaaxoo ba ne ko ñu ñoom ñoom ñi ñun tolloon ñu nga ci mbiru lekk na ko ñu ñu ñoom ñu tokkase rek yaaxoo ba seen mbub ma ne ah ñu ci lu mu wala rek ci mbiru rey rey sama doom bi ba lekk ko ba mu jeex tax ko ci sàmmalaan ñu ne ko ba mu loolu wax rek waaye nag loolu moo am xaaral wax yaaxoo ba ne bal bayit te wala rafetal na la ko ñu ne leen am ci suma ay bakkan seen am rek mbir rek ba ngeen def ko te sabon man ñi am na moom ñu jàmm yu bëri ak rafet de wala yàlla al mustaan moo di ci mbir la ni ko alaamaata si boona ngeen da ngeen melal ko rek yaqooba daal di wax lam war a wax nag man ñu ko rafet rek moom war waru ma ci te dimbali ko ma kenn lu ma yàlla ci mboolem ni ngeen di wax ci mbir ma suba waaye li ngeen wax yëpp gëm ma ci dara nag dara ni ci dëkk te guddi ci mbir ñu ziyaara fi yaqooba ci mbir ci sërëg dañ ko ziyaara fi mu ne ci nit ñi waaw na nga def bare sama doom mu ne ko sa doom gis nañ yàlla rey gàtt bu dëkk ci dëkk bi nga nekk sax sa doom déedéet rey sa doom te sa doom nga dund sax deewul moo taxoon nag mu ne leen xam naa lu ngeen xamul ba loolu am nga nag yow su sa nekk ci seen ba wa jaa te dikk te yaaratuñu ay baxkat ba arsaloo te ñu ni yaara doomu aji wax aji rootal seen te as laa kam yoor dal waxoo baagam ba te seen ba Yuusufa jafandu ca daag ba de borom daag ba xëcc ñu nit ñu defee ndox la rek mu xëcc ba mu génn ba dikki gis ko mu Yuusufa rek xaala mu wax moom borom kaddu ba ne yaa bu saa xool ma dëkk ma waaw kay yow ku daamu koy jaam loo ma xor ci teen bi mu ne man maa kontaan fii xor naa ba ne jaam ci teen bi fekk na doomu bàyyi nag dañ defee loolu buñ koy rek ñu la wër teen ba waaw làqu ci bi gañu ni di dégg ba xam nu mu def Yuusufa di nit baro kat ba waxee ne maa kontaan forna ba ne jaam rek doom bàyyi dal jaar si ne ko fii suñu jaam la ñoo ko moom daf ñu réeru noonu lañ doon boo ko jël ñu jaare ko waa ko loolu tamit nëbb ko bi daa bi ñu yóbbante ñu jaay la ko ah mu ne waaw moom jëndkat bi mu ne yoosu fa jaam nga yoosu fa dugg ko wax du ma jaam xam ne su ko waxee ñu di ñu defati ci moom leneen taxe mu gën a métti rek mu ne waaw jaam nga te fas na jaamu yàlla la ñu daal di ko jaay rek wala yàlla alim na bi xam na mu naa ma dana ci lañu jëpp yàlla xam na lañ def yëpp na wasarawu tan jaay ko di samanin tum dëkk bàq ngir ak wàññeeku dara ma ay doom maa ngi ci ñu way ñoo rek ñu jaay ñu ne ko dañ la koy wante rek waaw ñaar fukki dërëm rek doon wasarawu tan nekk ñu ne saay ñu ne ñëw di dugg ci jéem ba rek boo ko bëgg a dugg ci jéem ba rek ñu leen tàgg ba ñëw ba rek sa dina seen xol ñu jaay ko ci ñaar fukki dërëm kooka yóbbu jaamoon ñoom itam ñu ngi biti gis nga yàlla xaasu jaamu yi daf leen di nattu ci seen bakkaar yu ndawee Yaaqooba soo gisee yàlla nattu ko ba tàggali ko Yuusufa dafa amoon dafa amoon am xaar xar mu jigéen mu amee doom mu di ko rafetlu Yuusufa fokk doom bii am lu nàmp ci yaayam te Yuusufa du fuur Yaaqooba ren di mbokk fa pour yaay ji tool bi lépp mën a doy Yuusufa ba mu rayee mbokk foofu nag yàlla na ko Yuusufa sa doom bi tax ngay rayee mbokk ci xar mi danaa ko fay ci yow def ba déglu si lu may tànk nañ Yuusufa jaay ba mu di jaar Yuusufa di bopp bi dem dafa mos a seetu gis taaram bu rëy boobu benn wàllu taar Yuusufa lañ ko jox ba mu seetoo ba gis taaram bu rëy nag saa seet ay suñu na doon jaay dinaa seeru la loolu moo tax duñ ko jaayee ñaar fukki dërëm lañ ko jaayee wa qaala ta wax allati waa dina xam ne istaraar jël na mu ko min misra ci misra ku koy fiir kooku mooy xalis bi misra mooy buuru misra moo jënd Yuusufa limraat yi ñeel jabaram kri ñi teroral ma soo ko waaye afaan yal saana xatal na yàlla bu mu jëriñal mu rek aw na taxu ko di jënd jàpp ko wala dañ ñuy doom kasari ko kenn mu ñu ko de Yuusufa jëray ak kàmb la lañ waaw noom kolot ak yi ci misra mu mu sopp ko lool makkanaa lam gàttal lu Yuusufa ñeel Yuusufa ci la mu ci suuf ci misra de wala mu nami moo ak ñu mu xamal ko luñ taawil la ari yi tirim bi leen di rek wala wala wala xaalibun ay ñu nag la mu ala am yi ci mbiram de wala ci mbiram nag ak pronance yi gën jëfari ñu ñu laa la mën a xamu réew de ñaar fukki dara lañ ko jaay ñoom mbokk yi ba ko ko jëndoon nag indi ko misra nag di ko jaay moom ca màkk la bés ba ñëw nañ jaay Yuusufa dañu ma ñoom rafet moom Yuusufa kenn du ko gis kon nag saa yu jaay dinañ yëpp ñëw xëccoo ko Yuusufa la wax ak ñoom nag njëkk dina seer ku nekk ñëw rek ñu ne foog ñu jënd Yuusufa màggat bi ñu leen doon tobalank amul lu muy waa pokalam bu mu rek indi na pokalam ñu nañ ko bind ci ñi bëgg a jënd Yuusufa rek ñu ne ko sa pokal bii dafa nga ne mën na laa may Yuusufa mu ne ñu dund ma rek ci kanam bi nga xam ne ci lañ dund ci lañ ñu bëgg a jënd Yuusufa rek man loolu dana ma rek ñu jaay ko nag ñu këccoo ko ba nga xam ne teefeen ci wurus ak xaalis teefeen ci misk teefeen ci harira teefeen ci moot ci waayu koor loolu dañ ko mujj jaay rek te booba ñeneen ci sànq loolu moom ñeneen ci sànq lañ ci liñ doolal ñeneen ci sànq lañ ci gërëm xaalis ñeneen ci sànq lañ ci harira ñeneen ci sànq lañ ci misk ci moot ci alal bi nekk loolu lañ ko mujj jaayee nag kenn du ko jënd mooy góoru misaal góoru misaal ba jënd saytu yi ba mu koy indee jënd yi nag na jabaram nag mu teraloon xale bi yaakaar naa ne dinañ am ci moom njëriñ wala sax ñu def ko muy suñ doom daañu ne mu ñoom doom te jabar yi ak yi su misra booba mooy sa li xaar jabar yoosu la sa li xaar borom kusa la jigéen la woon yoo xam ne doomu buuru Maroc moo ko jur ci far ba mu matee sëy góor ñëpp di ko ñaan li taaram mu neraw moom ndaw sa gént gis xale yoo xam ne mi ngi mel ni weeru bada ñu ne ko kuree sa dëkk fu mu dëkk ñu ne ko misra mu xeew mu yaa dina teretaan yeeg ñu màgg ñëpp leetar yi bàyyi ko ci ñoom ñu ñaan ndaw si léeg-léeg ñu ñëw rek bàyyi joxoo ko moom Zalexa ne ko ñu ne ñoom ñu ne ñu la ñaan mu ne xas si ñu ne moom dund ñu ne ko xas si ñu ne dund mu ne daal moom la ñu laata tey ci dund ci dund dund ay at suñ ko waxee rek mu ne kenn dund jëlee ñu fa bàyyi ne ko kenn dund jëlee ñu fa rek mu ne moom mu lay ne de te bàyyi ni bind na xakim bi misra fii ko koy fiir te boobu moom mi ngi nii ak kii nga du dugg la nekk sama doom mat naa ko yaa dina yëpp mu koy ñaanal dana ne yow la bëgg yow ne ma may la ko ku koy fiir la di ndaw ay ndaw ñu may ko ko yow dana yëpp ci gaan moom Zalefa ak képp koy fiir ndeke bi ñëw di ko teew ba mu ne képp wàcc na ana fa la dëkk ñu ne fii mu ñëw ko rek dafa nekkam di leen tëngal na ko teewoo du fii mu nekk ci maqan woowu nag ak jaaxle boobu te jëkkër bi par faa ji jël mu nekk foofa di muñ xaw luñ ak mu gën ren jëkkër bi ñëw benn bés indil ko xawal feraw jaam mu ñëw fa ne ko dañ ana na jaam boobu danañ ko teral bu baax yàlla mën a gisee jëriñ li seet rek mooy sam jënteel wala maa ko wax ba jëfe yow fi waa ba ba waroon ba yow fi waa ne ñëpp fi teer nag ah tey maa ngi jox ko man xam-xam bu jëriñ waaye man ak dégg diine de ko kasaali ko kenn ñu kawe ko même ci wàllu sa yàlla moom suñu wala wala ñu de wala wala ñu ko tàkk ko yëpp ñu leen nga xam ne woo moom fi day bi ah ñu nekk la mu jëndee dem nag sa lay xaaral di tàkk yëpp wala mu waaye jënd ba ànd ak lii di boppam rek ne leen war ko dem man yëpp ba bay mu woo parce que nii tamit jigéen yëpp yenn xale bu day moom rek laa bëgg ci góor yàlla te mënu maa muus a muus a muus a muus te wax am moom sax mu tontu moom takk del ma tax mu wàññeeku ci moom añu na ko lu yomb dañ lay tabaxal benn kër rek ñu tabaxal ko benn kër te ci juróom ñaari néeg néeg ci gannaaw néeg néeg ci juróom ñaari buñ soog a duggee néeg ba ñu defal ko fa lal bu jëlee ci sama gëstu ndax bar du doon aar yooyu def ko bu rafet ñoo ñu jëlee ba parce que ci dëkk yi ba comme que Sadeka moo gën a rafet ci jigéen àddina mu sañ ko nag lekk boppam bi ñett lekk bi ci nekk waaye ñun te lekk bi rufi yaa xool mu xonk coy mu sol ay yére taram nag daal di toog ca lalam boobu nag ne dëkk bi ñu dem dama war ma yóbbu ko ñu ko dem ko ñu bu mu romb rek tëjee mais bu mu romb rek tëjee ñoom ak ci man ñu dugal mais bu mu romb rek ñu tëj ñu yóbbu ko dugal rek ñu tëj ñu yóbbu ko dugal ñu tëj ñoom ak ñu nekk juróom-ñaareel nag Sadeka nag yóbbu ko donc xool sama xottan bi mu ne ko sa jëkkër yi nga yore mu ne ko yow suba saa si yéen sa xarkanam day rafet mu ne ko suba ko xalam rek saxe rek te lay mujj mu ne ko sa bët yee rafet yow suba mu ne bët yooyu muy njëkkal yàlla parce que sa ndox tuuru bu may nag sa kaar yee rafet yow suba mu ne kaar boobu rek dafay mujj ni tasaaroo mu ne ko yow suba ñëw ñëw sooy man ñëw sa doom man de mu ne ko yàlla na yàlla mu ci loolu génn di daw mu di ko dab jàpp ca mujj ma yéen su fa di daw mu muy jot mujj ma xotee ñu dem ba ca buntu mu guloo ñu fekk jëkkër jaa ngi taxaw moom la waxa la xati tam tëj la boo amee buntu néeg ba wax xaaral te wax ne ko lii te lakk ñëwal ci man de ñun ñoo fi fa ñëwoon booloo man daal di rafetlu boppam nekk maan yi ci jigéen jigéen bi gën a rafet ci àdduna xaaral wax ñoo fi fa maanaam sa daal mos nga jàll ci loolu. ñoo fi fa ne yàlla na yàlla mosal ci loolu du ma ko def mukk de inna woo naka moom sama sang bi ma jënd rab yee sang sama ah sama rafetalu ma sooyee sa waaye sama. sama borom bi nga xam ne bi mu baaxee ci man lii daal yàlla dina ko xëy ci jabaram de inna woo naka ñu digal bi daa yor bu ñu fexe di daal mën a war a njaaloo de li mooy sant njaaloo te man waaw loolu du ma ko defee loolu ne wala xat xamat waaye itteewoon na Zalexa di Yuusufa Zalexa moom itteewoon na Yuusufa booloo moom waaw naka li Yuusufa jaar ci moom loola laa dugal ci kamal ak jubam bu raan rab yi kaa jël ci boromam kon booloo moom de loolu la fi Yuusufa Zalexa di gën a jëm ci mbooloo moom Yuusufa itam su taxu ko nag daa defal yàlla duñ jëf kon la la sale xaa ba dana ko dem de di suñ kay wax foofu yëpp dara amu ci Yuusufa si ke sale xaa sax defu ko ba nga xam ne sale xaa def na ko noonu dal di rafet boppam jaaxaan takk ko ne ko ñëwal borom man dafa seen gis diwaan yonent yi ñu ne ko booy laal law rek ñu farfa ci ci diwaan yonent yi mu ngi yonent yàlla Ibrahima mi mat baaraam mi ñu ne Jibril wàcce daal di dóor dënd bi Yuusufa mu daal di wàcce mën yi safaasa moo tax de man da ngeen gannaaw sax it sax it yooyu ko wax naa turum jalaal yàlla dafa wax ne wala xaraxal man nit na sani xaa ci ci Yuusufa mu booloon moom mu ne waa man tamit yaa Yuusufa bi yaa ci moom loolu am raa du ko njëkkoonal ak du ko mburaan wax bii kaal bi ñu borom dafa na tële tontu la moom jaal ne tontu yi mu borom moom la leen saafara waaye loolu tey nit ci maqaama Yuusufa rek ci ñu ñu yal wala xala xam man itam ne sa lekk ah ci Yuusufa solo moom kooku mu amul leneen loolu rek la waroon na def moom la rek wala laa an raa du ko njëkkoonal ak gisam moom Yuusufa buraan rabbi kaal bi ñu borom am na tontu yi te moom it daa ci moom rek su taxutoo nag yàlla waroon na ko kaafee lu dox ci lañ doon muy teewoo dafay xalaat kon moom it muy teewoo ba rek teewoo sax defu ko moom ci teewoo ko sax dégg nga daal nag Yuusufa mooy gor mu ne sangam bi ci ko tey biir ku baax ci moom la kon nag moom bu ko jabaram rek amoon na benn xale lu war a yëngu mbaa wax Yuusufa dafa rafetoon lool ndëkk jigéen joo xam ne di baax la jigéen ñi ñëpp ko bëgg ko ne nañ ko koor daf koy éviter mu ñëw mu defar ñam yu bari ak naan yu bari mu lekk ba noppi mu woo ko ci biir néegam moom ndaw sa tëj mu ko song ko ne na booloo moom xale ba bañ mu ne toog mu def ko nag xale ba daal ne ko ndax kàddu yi fi dama ñëmbale moom ma dem bagaar ba rek si jëli mu ne cabinet baa ngi joolaa mu dugg ba cabinet wal tojal parce que yëpp yëpp ci xarala yaramam yëpp dafa génn ndaw sa bëgg ko ni ci ndox la ak yëpp yëpp mu ne ñu doon wax mu génn ba mu génnee togal yëpp yàlla sotti ko gëtal nit fu xale ba toll rek gëtal gëtal nit te jibi mu ne la yéen da gis jibi mu naa ko yëfu ko ah am yëfu yëfu ko ngay dite ya dem yëfu ko moo tax ñu la ko wax yëfu ko dañu xalaat sotti yëfu ko moo tax nan ko jibaram ci jënd bàyyi may misra mu nekk ak kër gi mu gën a ñaar di góor yaa dina ko noppi di tuña man de sëy mu nekk ak moom ay at yu di jooy di jooy bëccëg di jooy doon ne jare ne ci loxoom di jaamu boo xam ne moo ko moom lu ko neex mu soppali ko ci moom mu defar këram di bëgg a defee moom rek loolu sax mënu ko am wa sabaxaa dañ jëkk a jaan baalu buntu ba yow su saa ngay daw ndaw saa ngay topp di waaw jàpp ci mu bam bi xotti ne du dem mukk de tudd demoon waxtaan da kam xotti xam ni doo mu bam ñu ndubur yi ca gannaaw saako bu biir ba xottee bi ca gannaaw doo ko ni ca wax ba buub ma waaw te yaa fay fekk dañ laa jëkk dem la dal baalu ba bunt ba rek bañ bañu dàqe laa ci bunt ba rek yow ba ne mën na jël na nga ne kaa ba bu daa ci fekk jëkkëram mu taxaw xaaral mu wax ma ngay sell mbokkam nag ñu ngi tëral jëkkër ga maa ko maa ngi baaw mun a araaba ana li kaya kana mun a yaa ngi kati nañ ko doon jaaro ila am ngi jam nare bu tije bu to a xam ni ko mbugal ani yu daal ni tije mun a ko ko jaam bi daf ma doon sàkku xam nga ne jaam bu dañ sàkku jabal buur day waaw borom ko def dara mu nekk waaw ñu dara ñu tëre mooy nañ ko tëj wala ñu bugal ko bugal bu xaala wax yoo suba day wax dëgg ba rek muy moom rawat ak ñuy fàq moom maa na fi mu ne waxul dëgg de moom moo doon sàkk ci sama bopp man maa bañ ku tey fii ne bon naka laay xamee nag ku ci wax dëgg ñu wax ko ne doom gën a jub mbéy mi mooy teel a seen diggante benn jigéen lañ ko doon matu jigéen nga daal di yëngu jasaasa doom bi juddu ko romuñ ko wa tey de sa seede saa yi naa ji seede mu ne Aliou suñu sëlee xaar. jaam boo xam ne jaam doom bay taxu soli xaar boo xam ne wëssi na doom bi doom doom bi juddu koromuñ ko doom ba moo wax ne ñuñ ko ana doom nekk na xam ne soo mu ba mokk doqateef na ko mun ko buñuñ ko gannaaw mun ko buñuñ ci kanam ba sabaxat dem ba dem na soli xaar wala moom yësufa moom kasidina bi nekk lam ko marñe wayen ko ana doom nekk na xam ne soo mu ba ko doqateef na ko mun bu buñuñ ko gannaaw parce que sabat nar na mu bon wala moom yësufa du saa def ñaari nekk la mu jëwee dëgg yi rek. gone gi juddu ba yees mu ne nañ seet mu jiw fu mu xoteeku. su fekkee ci kanam la xoteeku. doom yooyu su faa ko doon sàkku muy bañ. bokkati mbubam su fekkee ci gannaaw la xottee ko nag ba mu soobee xaar ko doon sàkku muy daw ba mu xotti mbubam ci gannaaw xale bi juddu ba ko foro wuñ ko ma wax loolu wala mara ba gisee jëkkati Zalixa xabiisa bu mu yóbbu ma ko doxatel ko lu biriñ ca gannaaw xaalam wax ne inna woo naka mu waxi Zalixa ji de min kay di ku naa ji nekk la ci taxiseen yéen jigéen inna kay rek na naka taxisee naa fi naa ji màggale waaw ku tey fii ku jiw la mu daal di xam dëgg dara xam ne Zalixa ko doon takku mu ne wax ji Zalixa doon wax yëpp ñu dem tam jublu jooju ñu ne taxam jigéen rek jigéen ak seen taxam yu rëy la mais yooyu ba yooyu yooyu aarin dëbbalu man waa saa yore biiram bi bu ne yooyu suba ngir ñu mën ko fàttee bu ko nekk nekk nit bu ko kenn dégg buñ fii ci dëkk bi mais sa lekk xaawa sàqri bala yow ñu ko mbéti ci bakkat ne ndaw si yow nag na nga bala yàlla sa bakkaat nekk na ka yow nekk nga mën a sàqri ci yow bakkat ñi rek dafa yow yaa tooñ balal yàlla yooyu suba yow nag bu ko kenn dégg ñu wax sañ diddoo li ko alquran nekk le mariama bint imran comme juddoo la waxe ak téere fi Yuusufa Sile fi mu juddoo la waxe ak yonent Yàlla Isa fi mu juddoo la waxe am na keneen ku judd wax ci Madina ci jamono yonent bi daa ko wax barakatu ñooñu ñooñu nga xam ne wax nañ ci biir te kenn faragu leen te xam jigéen yàlla melal na ko fii ne lu màgg la gannaaw bu mu waxee ne te xam seytaane lu doy la pexem seytaane ñu gën a woyof fuuf pexem jigéen moo tax seytaane du naagu ci benn jaamam yàlla lu muy mujj ci wàllu jigéen rek moo di fiitam ah koy jur na ràkk na seen diggante noonu yow suban wari na na ko rek te subraan ndaw si xabaar bi mu gënte bi ndaw si mu ne ko yow it banal yàlla te yow rek xabaar ba fii jëm nit rek ñëpp waxtaane ko ñëpp dégg ko nag naa Zalixa daf doon takk faraw jaamu ci muuru dëgg dëgg dëgg di mag jaamu wa qaala ka wax ni tootu ay jigéen ci Madina si jënd njënd Misra ci mbaatul azizi jabari buur bi waaye lu gën a mu takk fata jaamu ba di am na fii ci boppam xas taxa faa gor xam nañu ko ku ban ak coxeel dinaa ne que nun maraha dara mu gis ko yëtara nañ ci mooy mu diri jira di digge waaye Zalixa muuru tigi tigi tigi di takk ab jaamam rek doon di ko fëgg jigéen ñëpp comme tey jëloon di wax loolu wala maa xam ne am baa mu déggee di matériel yi ci doofeel ak xalat mu yónni di la yéene def ñoom waa ba dëkk mu xam loolu nag ñaa leen mu tasa am ñoom ñu nga def ci doole dëkk mu daal di jigéen ñëpp invité naa rek daal di laal taabal invité jigéen ñëpp ñu lekk ba suur naa nga man ni muy indi savance nag ku ne mu jox la benn savance jox la baagara la daga lekk waa ko tam jox la waaye def ñu képp kenn ñu ngi nekk ñoom ci kinan ak dolet kure mu jox la paaka wa qaala tam wax yoosu ñeel yoosu fa bokkul ceeb laa lay di seen kaw ba ku ne jàkkee fa France beneen dox France la def nag parce que xaar dugg jëggi di yoosu fa dama ngay taxaw ba kanam jigéen ñoom ma gis wala maara ay na baa mu gisee fa ñoom jigéen ña ak bar na ñu màggal ko rek ba ko jigéen ña gisee ñu màggal ko ak bar na ñu bërëgal ko jigéen ñëpp gis mbërëg ci seen kaw ndax taaram yoosu fa waxataana seen tëdd ay di yoon na ay loxo seen ku ci nekk yaa ngi dagg sa loxo defe ne France bi ngay def waaw dagg sa loxo wër ba mu dagg te yéeguñ ko ndax taar yëpp la waxul na dañu wax ñoom jigéen ñi ne xaafa sell billahi ñu yàlla yàlla taar bi yëpp yàlla moo sell maa xaafa bi ñoo fuufa mi ree ba xalal bi doomu aadama in xaafa bi ci ree illaa malakul ndare malaaka la te ñu lu mu daal di sell sa malaaka ci kay di nit malaaka la malaaka yi malaaka yi dañ ne ñuy mukk malaaka mën gën a tedd ci malaaka yi waaw mooy Yuusufa nii de kenn wala taar moom la ko yàlla joxoon moo tax jigéen ñi moom seen bopp te takk ko yonentu taar lépp la ko yàlla jox waaye Yuusufa taaram dafay taar rek yonent nag moom taaram dafa boole ak màgg doy jim jëm gën a rafet Yuusufa jigéen mosu koo takku ndax moom ku ko mos ba xam boobu gisee dañ koy ragal ba waaw soo jaaxasoo moom nag nga ko fa la ñu nga xam ne moo gën a leer ñëpp waaye ñu doon tënk rafet tuuti yëpp la ah ba nga xam ne jigéen ñi gàccal nañ ah jafe xaar noonu la ko fajee rek dañ gisee yëpp la mbërëm nañ de tagg nañ seen loxo te yënuñ ko mu daal di rëccatiku nag xaaral ñu wax lool parce que nag kooku defee àll bi mooy ki nga xam ne lu mel ni yàlla njàng fi indi moom de mu nekk yéen ma doon yedde naa dama ñàkk jom day naf sama jaam mu ngoo jaam baa ngoo woo woo moom la wala xaraawatu wala ay sàkk na ko am na fii ci boppam fa paatama tam bañ man maa ko doon sàkk moom moo bañ wala in lam yafal waaye la ndaay ngeen jëfumu maa am réew la muy digal ko day jëmm na dee ma tëj ko wala yàkkal moom la mu nekk dina saatal bi kawe trop ñu rek waaye léegi nag waaw damu naa bi faw dama koy laaj dana ko def wala rek dañ ko tëj kafe rek da dana trop jigéen ñi ne ko bul guddal toppal sa sant bu jigéen rek lu mu bëgg defal loolu xaala wax Yuusufa ne Yuusufa daal di jaaxle nag ñoom yàlla buñ tiitee dellu ci seen borom mu ne rabbi yow borom sama fig mu kafe yi ah bu moo gën a soppee day jëm ci man ma yaakaar naa ne gën a gën a ñëwoon nii day jëm ci moom de mu ne yow sama borom kafe bi ñu may tëj ko nañ ma tëj kafe moo ma gën a ne waaw may dem ci li nga xam ne moom la jigéen ñi sàkk ci man de way laa tafrit dem sotti wu la am ñu walis ma tay ko ma taxe seen ak ma jàng ilay na jëm ci ñoom waa kon sama nekk ñoom jaay ñu koy bakkaar nga de te soo ma soo ma fegal fexem jigéen ñi yow yàlla kon danaa dem ci ñoom de te kon danaa bakkaar de ñaan na yàlla gisal ci kafe daal te mu ci jaay jigéen ñi bu ñu waxatee rek mu dem kafe moom yëpp ndax loolu la ñaan fekk na nag booba dafay ndaw rek bu matoon dafay ñaan yàlla musal ko ci jigéen ñi musal ko ci kafe bi ndax wala mënoon na lépp waaye mu ne kafe dootu gënal yal na ko yàlla musal ci jigéen ñi tam dem kafe moo tax waaw mu dem kafe rek kafe nit loolu fii ñaan naa lu gën ci man yàlla mu ko yàlla defal déedéet ñaan li nga bëgg rek yàlla mën na laa may li nga bëgg te def ko mu gën ci yow ñaanal yàlla mu maye li nga bëgg te trop maye na ko def lii lu gën ci yow moo gën ganaa lu gën ci man yàlla mu ko yàlla defal waaw ñaan ni réew la ñooñu yëpp ba ñaan ñi moo ko tax a dem kafe ne kafe boo ma gënal waaw jàpp ci jigéen ñi booba it mënoon naa ñaan yàlla mu ci jigéen ñi mu ci kafe rek moo tax daa toog kayam loolu ñu ñaan leen ñun daal di maaraaw gannaaw bu ñu gisee laa ci teg tamit tegtale dañuy yëfu ba ba nga xamee ne yàlla feeñal na rek tegtal yoo xam ne xam nañ ne yëfu ba liñ koy doon waxal yëpp dara du ci dëgg et dina na nañu tëj ko xataa yi ba ci jeexal dara wax ne rek buur bi ne tëree dara yëfu ba nañ ko ci taxu la ndax waaw ndax mu rëy na fu mu romb rek ñu ne borom ñu ne waa jàngoo bii mooy borom kasa bi wax bi di gën di law rek doon nañ ko tëj ci kaso ba ñu fàtte wax ji ñu koy génn ñu daal yóbbu kaso lépp loolu ko raf di kaso kaso ba daal di toxu te someekaa someekaa moo ne ci bitti waaye moo ne ci kaso ba yénoon ne ba yéen ba ne ci kaso ba dafa yëkkati tabax mu soor waaw bu guddi ci kaw néegam bu ma tëjee rek mu ne ci kaw solo ba rek di di kon kaso bi kaso ba rek la bëgg a gis ci ni raamatu li mu bëgg a gis bu dee bëccëg ma nga ca solo ba rek donc mu di kontaan ko ba nga xam ne yéen a ngi ko wa taxala sa xaraf maa woo ànd ak yéen a tijj na kaso ba. parce que yaa ngi yaari karo yi yaari karo ñaar buur bi rek. buur bi nag amul na ñaari bëgg na yoon. kii moo koy njaral naan kii naan kii moo koy dogal waaw ñoom ñu ngi lekk rek. ci bëgg a dara laa wax dina xam ne ñu ngi ko place ba. ñëw fay kaw gàddu rek jox ko saabam seega dugub naka ma ko defal toxal ci ñaar yu buur bi rek. ndax mu dee mu doon ko. su ko daal di ko. kooku ak buufu nga doon ko ko njëkk. donc loolu dañu ko jox mu lekk. ñu defar naan bi. ne buufu bu lekk ñaam mu lekk. kooku la ci nekk. su ko jëlee ñu koy yëngu naan bi nga defar kooku la ci nekk. ah buufu bi ah. mais waa ji naan la ñu doon ñu waa ji daal di naan garam toog. mu ne ko yow lekkal sa ñaam yu mu mu xam ne moom borom ñaam yi moo def kooku bi. waaye mu ne wala suñ demee wala taxawu ñoom ñoom ñu leen boole yëngu dara ko. ñu xam ñaari boole yëngu boole yëngu ba tey jënd kaso ba rek. xaaral du maa tamit ñu am. te mooy nambal taxaw buur bi. bañ na jënd kaso ba ñu buuroon nga demee. kenn ne indi yàlla tamit. ah ñu ne dama gën a dama bokk. en tout cas may na sax na sax nga waxaale sa wax naa xaral keneen sa. mooy borom ñaam ba. indi yàlla tamit. xaaral di gën a gën sama bokk. ah ñu ne dama gën a waxaale di ci kaw bokk sama bokk seen borom. daa ko gën a lekk tamit dina am ci moom. donc yéen a sonal yow yëpp wa. di taal yi nii ci réew mi. naa la ko mën a ko doon gis dana mu tëjee jëlee yéen a ñu de. ñaari xale xale yi nag ñu ne ko man de damaa yëngu maa ngi am ñetti xale. bu ci naan ñu fexe ñu nag ma ñëw di njar. waaw may may njar njaral bi dina ma ko daa njarale. kenn dina ma ñu dem ak yéen dina ma ñetti xale ñu ngi fexe mburu. waaye ci ci yéen ñu ñëw di fukki ci mburu mi. fii ñu ngi leen dëgg. te ci ci yéen ñu ñëw booba ku gërëm su jëlee ba tax ba rek ñu jëm lépp yéen a jëgal lépp danañ ko téyewal dina ko suñu nit ñi di leen di leen ah mu ne xaaral wax yow su ma ñaan leen laa yaa ci kumaari kër gi ñoom saa ñu ñam ko soxlaa ñu ñëw dem noonu te dëgg nga ci góor te ci daan na ba maa ngi ko naa leen saa yu ci kuréel ab laa ngi yàggee kuma njëkk mu gisal leen de léegi wala lañ doon kàddu naa leen ko ku ci góor te lool mën a góor ko rek naa la ko ci dindee saa yu kumaa loo leen maa dama ñu aji nekk la ci la xamal ma war a dee borom sama ñu ne xamal karatu bañ naa ñu ta xaw ni di ñu aw ni laa yoo ñu ñu ñu daal jeera boobu te ñoom kaar na rek lañ laa rek jaara dara comme ñoom kaar na rek lañ doon wa tamaatu dama topp ñu ne ko ah bàyyi ñu ngi bàyyi sama Ibrahima Ibrahima muy Papa ñu Papa wa Yaquba wa Yaquba maanaam xeetu gannaaw ñu am am si bokkul bokkala di laaj yàlla mu seen dara daal di ko foofu ñu taw yi ñu fat laaj nekk la ci mu waale naa ci waale naa ci ak wax nit ñi wala ci loolu ci nekk ak soo naa ci gën ñu bëri yëfër yi laaj soo naa ci ñu teewlu de waa mi leen di waa nag loolu ci dara borom xam-xam yi jàppe ne borom xam-xam su mën a yëg li ci rëdd te mën a jàngale xam-xamu sariyaatu waaw mu soxla woo jàngale xam-xamu sariyaatu moo gën a yëg li ci rëdd waaw moo tax yëpp nga ñu leen di woo ci xam-xamu sariyaatu yi jiitu bi ñu leen di joxat ci rëdd bi mu naa leen yaa saa yi ba yëg nii eyeen yaari way de kaay sama ci kaso bi arbaabun ay yàlla mu taxale ko ñu way fafanti ko xaaru mo gën am yàlla am yàlla alwaye kër kana xaar te yaari ma jaami wax leen ma yàlla yu bëri ak jaam yàlla ñu ci gën man ngeen di xamal waaw ñu ñu gën yàlla maa daa mu leen jaam leen ñu bëri ku yàlla yi laa ma la rek ci tamé tuma ay ñu ci gën du ko ci ñu waaw waaw ko ci ay jëlé man ko laa ko yàlla yaa ñu ci tan alwaye yeen ku ngeen haté da di lay lay la ñu yàlla am na lu ñu ala taal ñu ñu jàng ci daal yàlla rek daal ko ko taw ni ñu mo ñaar tay mu jaay ci daal ci wala ci lu gëna tax na ci ci bari bari daal mu xam ñu loolu ya saay do ci ñu ay yeen yaar way de taale sama ci kafa bi mu ne ni ci jël ci gëna amaadu kuma daal ci ci yeen te mu ne loolu kat bi do ci mu kafa bi gëna ñett fan ay sey am ñaan dama ko sangam sangal sangara ne ko yow da nga delu ak ko xalaat dama nga ci fan ñu ne kafa bi da nga delu ak fay da nga delu di ko xalaat ngay nangal buur bi nangal ah nangal leen jëkk de mooy ñetti fan yi ngeen dénk mu dem waaye nag bi mooy ñetti fan bu ñëwee da nga delluwaat di nangal la sëñ di naan naan waa nangal sa buur maamam rek waa ma laa xaru daal keneen ci ne ko yow mi ci def ci ci jigéen doon ñetti fan yi def mburu ci ci di ko fëkk rek ci boppam mu ne da ngay gën a dénk gannaaw ñetti fan et la bu tëddee ci fan ak koor parce que koy lekk tey ñu naan mu daal ci boppam ne ko yow gannaaw ñetti fan daañu la ci jiwaay daañu la rey dañu la rey ci ci ñett fan la gën a mën a yëg ko ñu ko tumb ci boppam ñu ne ko yee jërëjëf dara sax mu ne la ko fi yàlla def na lamam bi le fii maanaam ak parce que yàlla léegi ñu fii ci moom fii la ba génn fii la ba waaye génn ci ñu ma ko waxee rek ci yàlla wa qaala la wax yëpp wala yéen a fi ñaan waa nga xam ne sax na wóolu na mu am na wala moom naa gis ak mucc daw ñu ma ci ñoom ñaar suñ ko waxee ne mucc la mooy na dalkat bi moom ko yëfal di ko buur ba na ko ko fii ci dama dara ko sa sant sa mu ne ko foo delloo ba ca buur ba nag ma fa tudd ne ne ko aw saraw nga ñu ca kaso ba te deful dara waxu dara dañ koo tëj ci kaw doon rek te yàgg na ca kafa ba naka la ba teel rek ñu génnee ñaari sala yi ñu dem Jibril dal di wàcc ne yow buba yow Ibrahima di sa maam ñu jël ko tub ci ko daan safara woo xam ne ajiyee ko bokk taxan ñu fab ko sànni ca safara woo man maa ko laaj ndax bu mu leen ndimbalal kenn mu ne ko ndimbal bëgguma ma ne ko sa borom bu ne sama borom xam li xam li ma nekk day na ma du ma ko laaj dara kooka di sa maam Isaaka sa baay waaye ñu jël ko du ko leen di béy àll ak a jotoon xaar dimbali ko mu dimbali Yaakooba waaye sa baay léegi yow amul lu muy ayati kaso rek ngay wax ne ngay dimbali pour yàlla di wax ne nañ la sax di buur bi xaaral fi pour pour ñu ñëw dara di ko kan ko bëgg di kaso bi de fukki at ak ñaar dañ daan di kaso bi moo tax fa am saa yoo te fàtte la oo ak ñoom ba jël sa jàng sa jàng si kaw la bi fàttali ko kàngam ba de waaye ñu ñëwee parce que loolu gën ci yéen a sax kàddu wax nga ko dëgg rek wax dëgg yëpp sax sax yëpp ba ñu ci kaso ba di wax ñu naan la yaa def yëpp ba waaw sax bi kay juróomi ñaari at waaw parce que ñu wax lépp juróomi at la am muy fukki at ak ñaar yoo xam ne am na ci kaso ba rek ba nga xam ne nag ñu am na fukki at ak ñaar te kaso ba yàlla na mu ko génn nag wa xaala sama am na lu buur ba ñu ñaan sama arrêté na ma dégg sama ba xalaat ñu yow yaari nag ci naan yi yooyu yaakaaroo nag naa dana war na leen dafa am juróom ñaari nag ne jaar ñu yooyu lapp buur mag ba nag teew a yaan ne man de damaa ngi leen di biig di juróom-yaari nag yu duub ak juróom-yaari nag yu xam juróom-yaari nag yu xam ya wan na juróom-yaari nag yu duubee wa sabab suñu balaa suñu dee naa juróom-yaari dub foofu ñu di way jëkkat oo xalaat yéen yàlla saa suñu di way waaw waa laa yaa ma la yéen borom yi yooyu ñu koy yéen a koy yaa jigéen ko yéen ko bindal nag yéen tànk yooyu la ngeen ci yaa jigéen ko kii bii ma dama ngeen kii ngeen mën leen fi yéen borom bi xaaral ñu ne ko alxas alal bi tax a ji yéen la ñu ne ko ah ñu ne ñu jaamu kii yéen su jaamu solo rek la ba maanaam ñu génn ci kaw jaar yi ñu ngi koy xam ci kaw jaar yi ñu ngi koy génn te ñu sax xamuñ ci ñu ngi naan loolu dañu war a nekk solo rek ñu ne ñu jaamu béykat yi waaye ñu sax xamuñ ci ñu waxaara dara la si waaye nga xam ne nag jaamu tool yi mu ne maa ci ñoom ñaari fere rek nandal kat ba mu toll nag war dakara ka fat di ko mu dafa fat ni yéefu nga daal de umma ci ci gannaaw jamono bi yàgg ne ana man na mu kana ma solo leen ci kaw yi ci leen paas leen yéen leen ma bu ne yéen leen ma leen ci yéefu nga man ma indi leen ci yéen yéen dañu leen rek ñu ñoom ni ko buddi ka yéefu nga ne ko yéefu fi yow yéefu nga ay waa ci ko yow dëggalaatal bi ci dëgg ko dëggalaatal ndax lam nga waxoon ci yéen yéen tam nga dara dañu fekk asnaaw génn te sama baqaraat yi ci juróom yaari nag di naan ñu di yaakulu ñor ñoo ko ne leen tawoon ci yow yaari yaakulu ñu di wéy lakk wa tamit mu daal nag juróom yaari gub ko ba ñu di wéy jëkkër o xaraa yeneen yaari taat ñu di wéy jëkkër daal yee lakk leen noonu ar jama dellu ila naa si bum jëpp moom ba daal law ndax leen ñoom yàlla moom ñu xam ci liñ jëlee dëgg leen xaala wax yéen suñu ne ci liñ jëlee dëgg xaat ko xaraa mën a daw leen ka def ñu juróom ñaari at daa def ci kakkalo dañu kakkalo juróom ñaari at waaw ci kanam waaw ci bay addinaa juróom-ñaari at ci kanam yëpp juróom-ñaari at dinaa baa ngi rek waaw su ngeen bayee bay mi dina bëree bëree bëri ba ngeen ko mën a lekk ba mu jeex moo tax sama xasal pour ñu ngeen dóor parce que loolu day gën ko ci suñ bëri yi jëpp ba dee moo tax ba ni ngeen dóor bu leen ko bojjee dañ ci leen ko mën a rek mu bañ a yàqu ci laa xam ngeen dara aji ñëw mu ne tax ngeen dara ngeen leen da ngeen lekk ko da ngeen di lekk rek na ngeen ko bojjee woon wala ngeen leen bàyyi ngeen ko dañ ko ñu mën a tiim bu ma yaa ci topp dana dikk ñun daal di saa yëkkati gannaaw loolu sax am juróom-ñaari at daal di ñuy ay dakar juróom-ñaari at dakar dana ci topp gannaaw bi juróom-ñaari nag yi duuf yi ak juróom-ñaari duuf yi ñu joxe mooy juróom-ñaari at yi naataange yi juróom-ñaari nag yi xam yi ak juróom-ñaari duuf yi dakar yi mooy juróom-ñaari at yi dakar yi xam see ñëw yaatu na danañ lekk ñoom ati dakar yi man ka dem ci nag yi jiite loolu law nañu yaa leen lépp lu ngeen dencoon ci ati naataange yi nag ci ati dakar yi ñoom ngeen di dundee ilaa xam leen dara aji réew maa si so da ngeen denc ko su ma yaati topp dikk min bari salika te gannaaw loole amul xat si yu faa su def na kat li naa si ñu fii ci moom gannaaw gannaaw yàlla dana kat lee si ñu dér yi te ñu taw de waaye aspiré te ñu man fii ci moom ñu ne tàng nag mbaa di fit nal ay waa ay ngalatin xenam de waqaala ta almaliku burri ñu ko ñu dikk la ñu di ci aji firi jëwante bi dañ ko ba bëkk ni dañu ba wax ko firi jëwante ba mu ne xawaa na waa aji firi jëwante bi ñu ci boppam ñu ci war a bëgg a gis falamma jaa ba dikkee ba ko rasulul yonent ba xaala mu wax ne ko irji demal ila rabbika jëm ca sang sa parce que amuñu laaj ko maa baalu ni foofu liñ gënoon jigéen ñi laaj ñaani xataa dogal nañu ay yoon ay laxa seen ñu rabbi na ko borom sama di kay di mu alim na xam ne di kay di mu ci taxa seen de ba mu ñëwee ne ko buur bi wala yow ko mu ne dina génn lu may nañ dajalaat jigéen ñi laaj leen liñ xam ci man de jigéen ñi leen dog seen loxo ñu ne wasaawam ñoom ma leen buur bi laaj li ma digaale ñoom de ma ko génn yonent ne moo man su fekkoon maa yëfu nga ba ndaw la ñëwee rek damay daal di génn kafe ga rek waaye lu toog ñu mbaam lu waaye pour ñu dañu ko ci tuuma yi ko tuumaaloon xaaral wax buur bi ne maa xam ne tuuma lañ mbir téel Israël tuuma la ñuy fàtte yëfu nga yëfu nga ma fii ci boppam buur ba dajale jigéen ñëpp ne la ñu ñu doon fàtte yëfu nga ana lu ñu xam ci noonu kon nañu wax ñoom jigéen ñi ne xaafa sell ilaa ñu yàlla yàlla maa lu naa ñun rek amuñu alay ci woon ñu ko ñu naaw waaw jigéen ñi ne ko dara lañ xam ci yëfu nga lu muy jàng yàlla mu sell nga ñun ñoo ko doon fàttali waaye moom mos a jàng ci ñun de xaaral di wax Ibrahima di wax fii ci jabal buur ba alaana léegi afasalay ala ko dëgg nga ne léegi ñu wax dëgg bu leer nañ ana man waaye te fàttali ma ko am ci ci ko mooy ñëw na ko ñu ne ko ñu ne ko ñu dëgg ñu mu ne man maa ko doon fàttu waaye lam waxoon ne waaye yaraaye daf ñu wax dëgg de ñu dem ci wax ko wéesu wa ñoom ci benn saali ko doole li yàlla ma ngeen ma xam xasisu mitrane amina ka man lam akul lu ñu ñu dëgg ay li fàttu waaye nag waaye nag waaye nag ñu ngi koy waxee ñu ngi koy waxee yéen su ko nee maa bëgg yéen waaw man maa bëgg rek ñu ngi nga xam ne ñu ngi ko def ñu daal di suufal ba sonn nag maa xam ne loola damaa bëri dañu ñu ñëw nag ci yaay ba xam sama la dina ma sonn ko bakkan yaa maa rafetlu di nga wax kon la ñu koy gërëm bande di laa mën a rafetlu nga rafet kan ba yéen ñu faral di yaaram sa biir la di ko borom sama affaire yi ay bëri la ñu wax ak yàlla ñu ñu ñu ñu ñu waxaana fa al malik bi ba ñu ci ñu dikkee ñu jërëjëf Aliou Sow ñu ngi leen di nuyu ak ñu ngi bokk sama rek ñu bari am di jëm waa Aliou Sow di leen di ma jagoo ko rek loolu ma ko defar kenn loolu laa xam boobu lépp lu ñu ñëwee mbaatee ci moom rek ñu jagoo ko rek ndaw la ñu ñu ko gaaw a wóotu ñoo ko fa daal di jógee daal di tànn xool yeneen mu yaat daal di julli ñaari rakka tàggu leen taxawal loolu maa ngi leen di tàggu maa ngi leen di ñaanal yàlla kër jure mooy bàmmeelam ñuy dund kër jure mooy barabam ndokku noonu ku fi dugg tey noonu ndokku nañ la maa ngi ñaan yàlla mu mu nooba leen xoli nit ñu rëy ñëpp ñu am ci yéen yërmande te maa ngi ñaan yàlla mu di leen yëgal ay xabaar moo tax ba xabaar bu xew ci àddina ñun tax nga ko jëkkee lim ñaanu yëfu la boo demoon ba jëkka fa ba léegi waaye dama li ci dëkk bi loo xam ne yow yëguloo si kenn dafa yëfu waaye ko ñaanaloon yëfu la daal di sànni yëreem daal di ñëw nag dugg si ca buur ba bala maa kàllama yow daal waxee ko xaaral ñu wax ne ko mu kan ko yow la doon wax ñun allo mu ci tey nag ñun aji dara jaw nga am ñu ci wala nga rek buur buuru Misra boobu dana wax juróom-ñaar fukki làkk yi bokkut yëfu fa ñëw waxee ko wax yaaram dégg ko mu waxee ko waxee Ibrahima dégg ko mu waxee ko ci juróom-ñaar fukki làkk yi ñu def mu tontu ko yéen su ak li ñu doon daaw yëpp booba buur bi mën na làkk juróom-ñaar fukki làkk yéen su fa mën a làkk juróom-ñaar fukki làkk ak ñaar mu ne ko làkk yi mu njëkk a wax làkk mooy ban mu ne ko mooy làkk samay doom mooy làkk sama baay tax Ismaayla bu ñaareel mu ne mooy sama làkk ay baay Ibrahima mu ne ko suñu diggante bi nga dégg mu firim ko nag diggante benn ko juróom-ñaari at naataange yi ñëw na ngeen bay bu baax a baax te lu ngeen bay na ngeen ko denc juróom-ñaari yi xam décoré ci topp boo defee ni ma la wax adduna yëpp daañu jël bëti yow te da nga jël ay adduna yëpp ala wax yéen si ko yaa ngi def maa la xasaar yi wax bi man la fii si sigur la naka la ma jënt man la fii nag boo bëggee yéen ji moo tax laaj ak tam daga na ci koo xam ne boo na ko ne suñ ko joxee dana ko jubal wam fañ na koo laaj rek waa ni ngeen yàlla cee nattu laaj duñ ko laaj tax na yiir na at keroog lañ ko war a ma fal waaye duñ ko laajee kaw nañ bara bi déwén ñu fa koy fal ñu naka man xafisum aji wattu la ma alimu aji xam la ma rek wakka faali ko kenn ñu xewee réewee xewee la yëfu foo dem génn ko jaka foga makka naa la lu jàppandal liggéey foo ñu réew lañu wata ji suusi livra yata bawa ñu wàcc ñu wàcc ñu suusi livra ay fee faaw ko fum ndaw fum sood rek naa ko def nag yëfu war a gaane man nga fi ñëpp yàlla def buur ba dee ñu far ko fal sangam jëkkati salixa yoonu nag ñu fal yëfu foo muy xafi fu mitra ba nga xamee ne xam nga ñoom ñu denc bi denc bu mbir juróom-ñaari at bi d'accord ñëw àdduna yëpp yëpp di jóge ci Misra Yuusufa at mu jëkk mu ne dërëmam li ñu door rek laaj na ko ñu jaay ko ni moom dërëmam li ñu door ba kenn xamatul benn dërëm kenn xamatul benn li ñu doon ci Misra at ma ca topp mu ne ay takkaay rek laaj na ko ci jaxaar ay lami ci caq rek ak yére ñu jaay ko ko ba kenn defewul benn ci Misra te déwén ko mu ne ay judi ko ci daal rek ñu indi ba benn weex bu mu mu defati ci Misra te déwén fa mu ne ay kere ci garab rek laay nangu ñu di ko jaay ay kere ci garab waa ci tool ba nga xam ne benn tabax bu taxaw wala tool bu ne ci Misra bu mu bu mu mu rangu te déwén fa mu leen jaam rek laay nangu ñu jaay ko seen jaam yëpp ba jaam bu góor ak bu jigéen jëpp mu ne jaay nangu ko te déwén fa mu leen seen i doom laay nangu ñu jaay seen doom yëpp jaatam bi la ñaareel ma mu ne jaayal na seen bopp ñoom ñëpp ñu jaay ko seen bopp ñu ngi seen mujjam lu fa doon xalal ak lu fa doon nit ku taxaw lépp yéen si fa moom ko mbokkam yi ñëw na di dégg ci ñoom itam ñu fi ngërëmu jotal jaramat naa ci yéen maa ne suñu mën na faa ko ñu toogal wala wala ko wala mu ngi tànk ci ñoom juróomi ci yoon yooyu dégg nañu rek bopp yi bi jotee nag yéen si faa ngi amee naaru góoram boo xam ne bu koy rek war ko mu ñaxal baat bi dana dem ci ñetti mais ñetti miin suñu ñaxalee rek ñëpp xam ne buur bi war na jënd kër yëpp daal di ñëw jubal ci jamono dimba bu yëpp ba ñëwee mu yaang saa am teeloon di nettal di woon jaay ba woon jot mu war ko fan waaye dina fi ak ci këram su ñëwee ci këram daal di suñu yëre yi ñu soloon daal di sol ngalari suuf di fanaana julli boromam di bëtt bu soli xaa nag taxaw ko ci mbedd yéesu fa yéesu fa yéesu fa dégg ko mu wéy teel a mu taxawati yéesu fa yéesu fa yéesu fa buur la léegi yéesu fa wéy dégg ko rek rek ba ca dem ñetteel ba mu ne kaa koo xam yàlla di nga xam ne moo mën a jël jaam def ko mu ne buur ba mu ko ragalee topp ko mu ne jël buur toroxal ko ba mu bind tiim ba mu ko moyee yàlla daal di fa baal yooyu nag ngelaw fab ko tamit ci natt yéesu yéesu ma dégg ko ne fa benn ndaw tuubu day jël ma ko ci sama kër ba ma wàcc ngoon ba mu bëggee ba ngoon jot mu ñëw dëkk néeg ba soo yoree jaamu yàlla amul di jaamu yàlla fàttaliku ko mu indi ko ko mu nuyu ko mu ne ko yow kan mu ne ay yëfu ko gaaw ngaa fàttali yëfu ma xamu ko mu ne ko xaw ma la mos mu laaj it booba soo ne xaar jooy na jooy na yëfu ma ba suñu xam alalam bi yëpp ku ci ku ci ku ne yëfu fa rek mu ko alalam jox la gaa amatu ci ci màggat na léegi da nga xam ne kenn xamu ko mu ne ko yëfu ma ne ko man mosuma laa xam mu ne ko mën a sa leexaar mu ne ko xëy bopp fitna bi bopp mbusi ba muy naka yaa ngi dund ba tey mu ne ay yëfu yëfu ba li ma dal ci yow yëpp yaa ngi may wax ne yaa ngi dund ba tey yaa ngi yaa ngi dund baat bi sa leexaar na fa saar ba mu ne ko lépp jaay naa la ko ba dem na am sa bët yaay jaay naa la ba suñu ma xam naa am sa xaaral mu ne lépp dimbale naa ko ci yow su ñu yëfu ba rek ma jox la ba léegi yàlla am laa féetee waaw amatuma tuut bu feebaraa buñ koy gàjje bu dara di toqee rek yéen su ko yéen su ko yéen su ko lay jënd li ko fa di métti rek yéen su ko yàlla ne ko ñu ndaw si bëgg rek defal ko ko mu ne fa ne xaa waxal loo bëgg sama borom na ne soxla sama diis rek naa ko faj mu ne ko ñaan yàlla mu delloo ma sama taar ba ak sama ndaw ba lakk sama rek loolu rek laa soxla ñu àdduna amul leneen yéen su ko bëgg a gàntu jënd ñëw ne ko sa borom ni nga nangu te jabar la te sa jabar la ñu aljana itam kon nag jar na takk loolu su ko daal di ñaan Saliha dellu ca saaram ba ak ndawam nga def mu takk ko te dem moom takk ba muy jant góor mu su koo xam digal na ko ñaari doom yu góor ak doom bu jigéen Afrafim ak Maysa Afrafim mooy Ibrahim Yusufa ba maamu Ibrahima la ko tuddee ak Maysa ak Rahmatu jigéen jabare ayoo ba jaxal see ñëw te saaru lan di aaye ñoom ñëpp sali xaaren jëp ci Yuusufa Yuusufa daal di taxawal nag naanu ci Misra baati mbindeef yëpp waaw topp ko buur ne wala ajur laa xale ci tewal wala xale xaw moo gën bi la see ñee ñoo ñaa mënoo gën ñoo kanam te ñëpp ya taxaw ci ragal yàlla yëpp siis ba dem nag baaxagi saam baaxagi kamxan te dëkk mbokk yëpp ngoo nag ñoom ñu dënd ñu nga dëgg da jaata di ko effet Yuusufa mbokk Yuusufa dañu baax la fukk ñu ko fa ñoom jotee am ba ñoom ñëpp ñu ne Jalle ñoom ñu dem ba ne buur bi ñu ne buur bi ñoo ciy ñu fàtte si am mbir bi yow. ba baxalee bañ xaram xale yi ci réew mi ba aarafa ndam xam la am. waaye itam ñoom ñu ci doon waaye fàtte la ñu doon ci moom rek ñoom xaj nañ ñu fi xam leen bu yàgg ñoom xamuñ ko. ndax gëjoon ko nit dañ koy gëj a gis ndaw la. te defoon nañ ne dee na bu yàgg. fii moom di buuru ñu fa. xalaatuñ sax ne yéesu nga la. yéesu ba moom xam na leen. ñu ne dafa nekk rek abdoulaye mu ne nee dafa defoon entreprise ci buntu kër ga ku dikk rek ñu laal la fa bàyyi ko bañ a àggtee entreprise ba ne leen eh yéen dañu defoon ndam ay ay rajo kat ngeen ñu bàyyi ko ci beneen réew ñu ne déedéet ñu ne ay yonent lañ doon yonent waa Koga ñu tudd seen bopp ba yéen si xam leen ñu ñëw ñu dalal leen mu ne leen gan mu ne leen gan teral leen jëggal leen itam ñoom ñëpp ñu ko seeni gërëm mu wax ko raw jaamam ne ko gërëm yi mu jëndee woon ku ci ne say gërëm na ko delloo ci sa sa sa suuf sëpp sëpp wala ma gaasal mbënd wala la leen di gaa seen ci war seen xaalam wax ñu ngi tëmi di këral yi baaxal ci mbokk lakk ñu wala ñu abi ci baax seen ba ngeen dëgëree ba nekk nga leen ñu yem bay ñu ne ko léeg-léeg ñun ci kër ñaar la ñun waaye suñu mbokk yëfu la dee na moom tëjee ide rakkam nag ba mu yaa ngi suñu bàyyi moom laa ngi di ko defee di ko di ko fàttali ko yëfu la ñun ci këriñ ñëw mu leen wax leen dëgg ñu ne ko wax leen dëgg mu ne seen rek lii mu ne balaa maa gëm seen wax ñeneen di ko ma ko ñu ne ko baax na mu ne ala taala ndax gisu leen ani naka man aussi dana ma ko al taylam nak waa naa man xaar ñun ci ma aji gën way jàng lañu de tey lam taatoo ni ñoom dikki leen ni bi ci yaami in wala kaara bee dem dëgg lakk ñoo leen dëgg ñoom wala taqraboo ni dafa leen dëgg bu kat boo xam ne mu leen dañ yaami kat bu leen ñëwati bu ma leen jox dara xaalo mu wax ne kon waaye du xam ne fàttu xam ne ci ñun abaa baayam waaye loolu ko la xaaral boo def lañu ko def waxaale fa wax ne ci def yi ñaan sara jàng la ci ñaan def leen du baatawul ay gërëm seen ci ñu xaar yéen ci sëf seen ku ne gërëm yéen bind sëfam mbaqaleen ko ko ci sëfam bu gàtt mu koy laa dem mbaq la ñoom yaari fanaa wala ñu xam ko rek idan xala boo dem gërëm ñu laa yi jël ci ñun seen laa dem mbaq la ñoom la yoon ñu jël ci su jëlee rek gërëm ñu xam ne mënuñ ko duñ ko dagal ñu rek waa fokk ñu dee ci ko rek wala moo rajo dañu delloo laa duñ jëm ci baay seen xaalo wax ne yaa baax na baax mu mu ne ko def mu ne naa fi mu ak karim dëgg boo yëngu ba yaa ngi def suñ delloo ñu dëgg baar si ñoom ñun maanaam ànd ak ñun axaanaam ba suuf na toll waaw li dëgg rek way naa naka ñun la xam sa ngay wat lañu lawal ci moom ba yaa ngi mun daañu ko wattu dara du ko jot xaala wax yaqaw ba ne ala amanukum wolu ci ma leen ala yittimum ila kama amantukum wala na ma wolu leen ala aatikum ba kam denum xam li ñu dëkk bu ma leen wolu ko bëri garaaw bi ma leen wolu woon ci yéen ngeen defoon ngeen ko la ngeen ko defoon falaa yàlla xaar ñu waaji gën ñu ko jaaji wattu wolu mu aram raay ñu waaji yërëm nga yërëm ñu de waaw daal yaakaar naa naa yàlla dina ko wattu waaw nangu mu nangu rek ñu ànd de wala man fa taxaw ba ñu ñëw na taawam yore seen wala jotee ñu fekk bi daa te may borom seen pour gëdd la ñu ko léegi ñun fii. xaaral wax yaa daana yow baa si lu mën a tiyaan ñuy sakku ci taraangaay buur bi de affaire bi di baax ñaari borom ci ñoom pour gëdd la ñu ko yéen a jëm ci ñun ñu dem teñalal ko ko wala mu itam dëggal aaram ak ñu fii wala fa ñu ko yëpp waxaanam mbokk fii wala daal itam dalee ko kay la bàyyi waa jëgam ak jërëm de ma nga fekkal ba yaa ngi ñu ànd ak ñun ñu won ko borom ñu ñu bàyyi te ñu jënd bëriñ bi am te daañu ko nekk bëriñ gërëm di gërëm bañ yàlla di fi yàq daañu ko nekk kay ñoom dëgg la yëf yi ñu laaj jàpp ni ne ko boo gisoon buur bala ñoom tedde ak ñoom tawee buur bu baaxee ni nit ñi fi ko nit ñu ne ah mbaa buur boobu ngeen wax bi su ma doon di yëf la xaala ñu ne ko xaalam yàlla yi ñu ëpp la xoo lañu ëpp la xoo xale ci ne ko maa ko moom la yéen ak taa too nii dafa ngeen joxee yu ma ci fan kumbere ñu laay ci yàlla dafa tunde nii da ngeen di jël bii ci moom laa ngaa ta nitum mare baala bi wax leen rek wala maa ataw lañu joxee rek ci xawum kumbere seen xaalam wax ne laa yàlla waxtu yi ay ci wa dalamu ala ma na ko yu jëlami wax ma nag yéen wa qaala sa wax yaa bani yéen dañu jëpp na laa ta dëkkale bu leen xaraf jëfra min baabin ci burtu waaye ñu buri bani la bu ngeen demee bu leen dugg ñu naa fukki góor yëpp te kenn leen di bu leen def loolu tasaare leen ñu ngi ci naan dadi ñu ngi ci naan dadi waxulee xarala yi ñu naan daal di ci buntu mu taxawal kat yu réew foofu ci gërëm ndax bu leen génn ñu jàpp ne yéen ci ne bët dëgg la ne waaw dañu bëri na pour dugg bàmmeel moo la ci dugal bëri na waaw gërëm ñu dugg ci kaleeraat fekk génn ñu la ci yéen bu dem ba maa wax nii dañu ci ma am kum ci yéen ñeeraa ci yàlla ñu fa ñu dara ne ñu ko kum ñeeraa tey laay laay dara ñeer yàlla allez ci yàlla tawakkal ci la ma doorlu waaw léegi ci moom fay tawakkal ci doorlu yàlla tawakkal ci la ma doorlu rek wala maa baxaloo bañu xarala yi ñu sa amarawul foofu la digal na leen abdoum bàyyi leen ñi ko saaroo ñu dikki ca mandad ñoom ñu ca mandad maakaan la ko tëj wax ni di jëriñ anam ci ñoom ñu ne laay ci yàlla ñu seen dara illaa lu fi nekk xaajo seen xaajo dina fi yàqoo ba ci bakkanam yàqoo wax ba ba faj ñu ko def yàqoo bëggoon leen lan rek mbëggee gi leen bëgg am yaram ne gi leen ci ñoom way na way na ko yàqoo wax la ko ñu borom xam-xam la dama lam naa ci lañu xamal ko rek wala ci lañu ko nekk ak moo fi gën a bëri nit ñi laa la mun a xamul rek wala maa daxalee ba ñu xarase ala yoo fi ci yoo fi aawaa mu tapp dina jël ci bopp ma xaaw bokkam ba yaa ngi bañ ñu nag mu bëgg a féetee bañ yaa ñu doon lawal mu def pexe mu ne ñaar ñu bokk ndey nañ bokk nii ñaar ñu bokk ndey bokk nii bañ yaa ñu daal di jooy mu ne kii ñuy jooy ah ñu ne kii maram dafa deewoon ba muy daaw amul pour bokkat moo tax muy jooy mu ne ko ñoo dee bokk ak man bëgg doo bokk ak man mu ne ko yow ku ne bëgg naa bokk ak yow waaye yàqoo ba gis nga raay gis nga waaw léegi nga sama doom mu ne yaa ngi gën de xañ jot mu ne ñu nekk ñaar ñu bokk ndey nañ bokk palaat tëdd jot ñu ne ñaar ñu bokk ndey nañ bokk laal duñ tëdd ñu ne fa dem yaa ngi dellu jooy mu ne ko ñëw ci dem bëgg la mu ne naa xeeg yow kay ku nekk bëgg naa ko day yow waaye daal yaa ko la gis waraay gis la ba mu tëddee moom nag ba guddi mu di ko laaj ndax am nga doom mu ne ko waaw am naa ñetti doom kii yëfu nga laa ko tuddee kii kii laa ko tuddee kii ndam laa ko tuddee kii bi garaawal yëfu la ak deret ja waaw kii xamis waaw mu ne ko yëpp waaw fàttali ko yëfu fa rek ah mu topp yi lay gën ci bopp nga xaaw mbokkam de xaaral mu ne ko indi yéen ak man ana man axaw ko maa ngi bokk fa Yuusufa rek bañ toogee ba gudd nag mu laaj ko rajo rajo ba jotal la ne ko maa Yuusufa ñu gëm ne katam ne ko yaa Yuusufa mu ne ko waaw mu ne ko man dootuma ñu gi voilà te tey bu jàq bi maa kaa ngi jël nekk yoo xam ne doon def ko de ne ko keneen di ñu doon woon yëpp bu mu la jaaxal wala ma jaaxal ba mu ba mu nga dalee leen di jaaxal ci sa seen jaala mu def ci xayata saafa siraale ak yi yaal ci suufam bokkam di bañ yaa ngi nekk ba nga mu ne ko mu nga rek man danaa def sax ba nga def ci sama loxo te day ci ñaaw te su ko mën a jàmbi waaw buñ tëjee bay dem xobal saa si nga xam ne moom la ñu natte nga dugal ko ci suuf ba yaa ngi dëgg ñu ko wér de fekk saa si jawaar la woon boo xam ni njëriñ kenn mënu ko am lépp wurus la ñu daal di ko jàmb daal di fab saafa roog ko ci suuf ba yaa ngi dëgg su ma àggoon a fab yéen mu wàcc ñu ak yéen gannaaw buñ jëri dëkk ba ak yéen yéen ay wetu àll weer yéen jëgg nii nekk ma koy yéen saara kon way ak yéen njëg ñëwee taxaw leen fàcc leen yow su baaxee ñu wax loolu mu ngi jublu ci càcc bi nag fàcceel ngeen ci taxaw bàyyi ba muy bëri xaaral ñu wax ne waaw ba léegi jublu ci nañu xale yi ñoom maa baax na lan laa kàpp leen yéen ñëwee ko fekk na booba nag ñun ñëpp ay saadu lañ ñu ne ana lu ngeen yor xaar yooyu wax ne masta bi dal ne ne ko suwaal ma dikki saa si góor bi wari man jaa aji nekk la ñeel ko dikkal bi ci lim hindu bàyyi sofa gëlëm de waa saa si góor bi moo réer su ko feeñal daal la dali soos gëlëm waa naa tamam fahim aji war laa bi ci moom xaaroo ñu ne te laay ñu ne yàlla laka daal lu tudd laay xam leen maa ji naa di kunu lu si dañu doon yàq si la ci suuf wa maa kunu lu kunu fara xina yooyu xaj ci de xaj ci de xaaroo ñu wax moom mbay bu ndamul su maa ji faa yoonu di paan in kuntum dem nekk ngeen kay ñu yooyu mar ñu ne leen waaw ku sàcce ana ana luñ koy fayee ci seen ci yoonu yàqoo ba ca kanam de dafaawoo ak tawam man mu jida mooy ka fekkee na ko sóoraale yi ci sa ci suufam de ñoom doomu Yaqooba yi ñu ne ko ku faasi feeñ ci sa tëf rek koo xay nekk faykat yi loolu mooy sariatu Yaqooba ku sàcc waaye doo fay la nga sàcc soo moom sàcc dafa woo mooy fay lu sàccam de ci yoonu Yaqoo ci yoonu Yaqooba suñ bàyyi ku sàcc rek yaay fay la nga sàcc de loolu ne kasaalika kenn boobu la fay waa ñu wax ba tey kasaalika kenn boobu la fay nag gisee lañu fay fay ñu ne way sàcc ña ba ba daa tëjëkk yëf boo baawee ci yéen ciy tëf seen yëf loolu dana dana visité sa fépp jëkkalu visité safu roogul ci mag waaw gisu dara mu ne astaxfirullah yam ci dana sëf feet dañ daj waaw su ma saxla jaa topp xam la yaayaat yi di jëkkee safa mbokkam ma su ma saxla jaa topp mu génne saa sama yaayaat yi te safa mbokkam ma rek mu mu ñitu yëpp gisu ko mu soog a mu ñitu safa mbokk ma bu ko jëkkee woon ñitu mooy ko ne xëy na ñoo ko lebal waaye moom la mu jëfee teg ko ca ka kasaalika kenn ni mu fexe la yëfu ci naa lam fexe di yëfu wala ñoom yëfu wa maa kaan ne ku mënoon di yàqu sa diggante xaaw bokkam ci diine malik ji ci diine buuru misra de diine buuru misra booba sàcc dañ koy dóoru fayloo ko ñaari këli lam sàcc waaye nag sàcc nekk faye la nga sàcc kooku duuru duutoon xatte misra moo tax ne su ko doon yàqo koye waaw sama mu doon yëfu wa yëfu wala ko mu yëyee dëg daan yëfa la dara mu sob na ko yàlla ndax sama doon yëkkati dara jaati mënu saa dara jaay ci nu soofen ba soo ko bindi si al nin aji nekk la ci kaw bépp borom xam-xam ali ñu dem jaxam de xaaroo ñu wax ne toor il yes rek dem sàcc na dañ yaan win waxat sara sa fàccee na waxum nekk loo ñëw tamit xam nga jël jëkk dañ yaan mën dafa ñu fàcc ma dem yëpp waa fàccee woon ee ñu dafa taay fa afaraha te nëbb ko yëpp yëpp fi na fii ji boppam wax jama xat yëpp wala waaye mu nëbb ko lu tax ñu tuddee ko sàcc mbubam yonent yàlla ibrahima moom nga xam ne Isaaxa doonoon na ko bàjjali Yuusufa jigéenam Isaaxa daf ko tëgoon ci ci saaj takkal ko Yuusufa ba nga xamee ne sànni nañ ko jeex seen bët def ko yaramu neen ñu ko ñëw ci ji saaj ba sool ko bugg bañ bañ ko génnee nag ba bokk yi des di ko jaayaat ñu gis ko mu ngi sol bugg Ibrahima ñu ne bugg ñeen yàlla Ibrahima yi Isaaxa doonoon ku ko Yuusufa jëlee daf ko faj moo tax ñu ne Yuusufa fàcc la ñu ne léeg-léeg nit ki la doon yalwaan ci kër ga mu dem fàcc na nag ganaar gi néegi kantaam tabax ko mistir ma ñu ne déedéet tam-tam daf doon jaamu ab xiram waaw yéesu sa fàcc xiram ba damm ko li ci mën a am daal waaw ne na yéesu waa fàcc woon moo tax bëriyaama rek mën da bañu faj o xamuñ suñ koy waxe waa sara te nëbbu waaw loolu yéesu ba yéesu ba fi na fii ci boppam de yéesu ba nëbbu na xaroon ca am daal mu nëbbu ko ci xolam wala ñu biraa fay yéen mu ko law ñëw leen de xaalam wax ne antum yéen sabu yéen a gën a bon makkaanam ci barab ci yéesu ban boppam mu ne leen walaa yéen a bon ci yéesu waaw rekam wala wala alamu aji xam dinaa tëdd ba ne loolu yéen a lay ko def xaalo ñu ne waaye wala fi fi yow buuru Misra dina la woon ko ñaana bañ yaa min aban bàyyi seexam ku di magat kabiran ku di aji mage fokk fa jàppale aar naa kenn ci ñun ma taan yow sa borom dina naka ñun waraa ko dañu gis la ñun ñu suñu yow nga ñu la de ñu ne xam ne li ku baax nga te ban yaa min daal ñu la bàyyam doon defee te mag la dañoo bëgg nga jël kenn ci ñun te bàyyi ban yaa min ñu ñu di sa bàyyam de ñu di nga defee xaala wax yëpp maa ko waaye musul ak yàlla am naa ko fa bu ma jàppat ilaa min am naa ko fa bu ñu jàppat ilaa min wajat naa ba rek tam fekk ma taana waaw saaf mu ne la wax moom de ah mu ne ko ma jàpp lu nekk nga xam ne sama saa ci sëfam laa ko fekk waxu ci faj sama saa de nga xam ne faj ko inaa na ko mu defam boobu de ba gaal yi na way toll ñu dem te la ma sawee sawee dañu naagoo ni ci ñun xale fa ñu dara nag nag leen di ñu doy dewaale ba bokk yi ñu su sawee naagoo ni nag leen jox ba yaani ñu dem nag dara ñoom fukk ñu ngay tëral seen pexe nag ñu defal ko yëfu la xaaral wax dëgg yàlla na ay magasin ci ak te muy robinet wala seen mag ci pexe muy yow daal alam ta alam ndax xamu leen naa baa ku ñu ko bàyyi seen xanaa xasa jàpp na xale kuñ ci yéen moo fekkal ko lëre ñu laay ci yàlla ba ñu xam ne suñ jëkk naa faral suñ tàgg nañ leen ci yëfu ci yëfu wala abrahama ngay tàgg ci ne war rasul ataaya ci ne wal ba tuddi leen yow ñeen wax ya daal sama wala kuma laay ci ak yàlla ngi ñeen mo ñu tar daal ñu may digal ya tan yow bañ bañ ñu dee nag ñu waaye ko fàcc rek fàcc na jàpp nañ ko moom sax waaw ñu ñu bi loolu di leen di leen wax loolu kat dañ ko yénoon bàyyam ne daa ci ko dénasi xaw ma kenn waaye man daal bu ma génn bis ram buub loolu yàqoo loolu daf maa jox ndigal naa génn bis rek waaw wala yàlla te sama diggante buuru bis rek ñu de mu jéem a dem leen yaa yi mu jëm ca bàyyi seen ba xooloo wax leen ne yaa baax naa yow bàyyi si mu nam na kanaka doom sa salaka sàcc na mu dafa sayit naa seede wuñ teg ci sa waral ko ndax naa def naa dara ca lañu xam rek gis nañ saa fa génn ci ak tëfam rek loolu lañ jëfoo ba màkk naa nekk ñu woon ab sëriñ wala ko leen xarit ci kaddu wasa di laajal ak xale ko dëkk ba la ci baax pour naa ne sama ñu ci moom laajal waa Missirah wala yaram laajal njëgmal la ci moom xabar naa ci ñu ci ñoom su fekkee naa mooy naa ne comme le pas de problème de domaine bi lii moom wax nañ dëgg daal wax yaa ko war a ne dal bayit sabala rafetal na laajut ñee leen am su sukkumaay bakkan ngeen am rek di rek seen bakkan rafetal ak man di rek day def ci sama doom te sabal waaye ñoom ñoom ñoom njëg ñu rek waaye man damay ñu mën rafet rek afal daa wax na yàlla ak yaa ci yéen ñu di ko rek na ñii di ñoom ñëpp ñoo su faak ba yaa ñu nag roo bi ñoom ñëpp yàlla mën na ma leen déyoo bi ñu ne woon ko ma buur woo ma alaani mooy li xam alaani mooy li xarañ ci jëfee fa mbir jàqare gi gas bi nag dañ ko yëngaloon waaw jàqare gi jëfee ci yëngu ba وتولى كبرته عنهم وإسلام وقال كما يا صفا تكل الدقرة يا أبو داني تقليك يهول جوي كل يهول يهول بيا كما تقليك أبو داني جوي يهول ويا فات بركة من أين أنا يا من بقول يقاب الجوي جوي جوي جوي ولا كم يا من بقول يا كاتب مجد النهار jàkkaare juróom ñaar fukki jigéen ñi ñaaral juróom ñaar fukki jigéen yoo xam ne ku ci nekk benn doom daa noonu bu dee jàkkaay yi ñoom ñaar fukki jigéen ñi la ko yàlla dàmbale yoon ba ñàkk yëf la pour moom te ñun ay gerte la moom jàkkale waaye ñu ne ko gànnaay ñu ne yàlla parce que bay ci la ko kuru bi ci biir suuf la suuf la ak tata ko dama nekk xaaral dañ laa gis ak dee aw tata yi dañu nekk ñaar xaaral ci ci ay xaaral ñu ne ñu ne ko yaa ngi dëkk yëf la boo baax fat li ko yëf la nga xam ne dee na bu yàgg boo ko baax fat li ko koy dagg rek xaaral ne dina nga ak naka dana taal daf ci jàkkale sama wala su ma jàkkale sama laay jëm jaare waaye dama dana ma xam ma bàyyi ci yàlla bu yàlla dama koy xam maa man sama taal sama jàkkale sama ko taal ko jugee man koy taal sa yàlla waaye man lay xamu ne xam naa ci yàlla bu ngeen xamu de yóbbu ko dee ñuy dund de yóbbu ko dee ñuy dund li ko fa xamalal mooy yóbbu ko yóbbu nga xam ne yóbbu ko du jeex bu ko yóbbu ko am mooy ci doon bàyyi benn ak moom bàyyi bi ak seen yaay danañ ko tuddee moom brandé ñaareel ba gis na mala ko ñëw bi ne ko analyse ko sama dal yaakaar mu ne ko yéen nga dee ñu ngi gis na ci ndigal laaj ko ne ko yow ma rey sama doom mu ne ko kàkk bi nga ci kanam sa dëkk sax dama ko rey kàkkaa sa doom yëpp saa ngi dund moo tax mu ne man xamu naa leen xamu yàlla ne yéen doom sama da ko ko jël ko taa sa ko ñu ren leer ñu ngi ko ñu ko waxee bokkam na ngeen dem ngeen ngi dund affaire yi ñu doon yëngu ko rek la ko la ko ko ñëw mu nga wilaay ci yéen a ngi leen di leen ñëw nag mu nga wilaay ci yéen a ngi leen di xaw ma yàlla kaa doon ñu leen leen loolu ñu nga xam ne moo defal lépp nag mais loolu la ñu ngi fa dañ ko wax la dama sama ci waxaati ci dëkk ngeen ñu bon ñëpp dañ ñëw di ba kañ ñu bëri dinañ faam ci xaatim rek fekk ku tabu ci ñoom bëgg a def loolu dara mu koo xam lu may tànn ci tey dama bàyyi ñu koy def su fekkee kenn du leen mbay ñu leen la rek looloo ko mën looloo ñu xay xay na ñu ngay xaaj ci bis rek yéen bu yoroon dama bu ndaw ñu ko dama téye kooku ñu ko téye ba rek mën a dugg xaaj mu ñëw dugg si yow suba ne ko ci kanam di fekk nag ak dooleel sàmm ba ñu dafay taxaw moom yow suba ay xam ko ba jëfoo daanaka ci mu ngi ci ba yow suba mu ko fi ah man day bu ñu ko yaa ma rek a man de xaal bi jiw mu gën a def ci biir rek doom bi yaa ko doon jiw rek moo ko mën a xam te gis naa ko doom bi laal na rek mu daal di toog ay yëf yëf yëf yaa ko doon jiw ko moo ko jiw te jëli ji nga ma daal di wan am góor yaa dina mën a ko mën a mën ci tuur te yaa ko doon jiw ko waaw mu nekk man de yaa ko doon jiw moo ko def nag yaa ko doon jiw nekk lépp jëli ji yaa ko wax yaa nga yàlla doom yi saaxa bu ñu leen di yàlla doom Ibrahim xarit yàlla jëm ci buur Ndika loolu jëm na ci ku topp ak njub maa ngi lay xamal ne dégg naa ne yaa ngi gàtt sama doom ñun nit natt la ñoo xam ne sama maam Ibrahima yàlla nattoo na ko ba ñu sànni ko ca sama rafet ba yàlla seetal sama rafet sama maam sama baay waaw Isaaxa yàlla nattoo na ko yàlla digal nañ ko yàlla ñu di ko rendi ba yàlla ko jëlee lam xaar man maam sama doom bu ñuy wax Yuusufa moom laa gën a bëgg ci lépp lu ma jur mu xalaku te jëriñ la doom rakkam ji nga xam ne moom laa doon defee ñu ne yaa ngi ko tëyee ñu dafa sàcc te man waat naa ne ñun duñ sàcc duñ jub sàcc dana dana dana laa jëloon dina ko léegi wala dana la ñaan yàlla ñaan boo xam ne dana leen gis sa juróom-ñaareel ba léegi dafa jàng yàlla dafa tontu ko. léegi bàyyi ko ñu ci rajo bi ñu rajo bi ñu ko jëm ci yaakaar la te suñu daay dara ñu baaxa la suñu daay dara ñu baaxa xam ñu maay li nga wax ne jëloon ñu nit léegi natt la ñaar la leen daanu ci natt la natt la ñu ñu wàllu na leen ñu ñu ñu ñu leen ba ñu yàlla na loolu ñu dal ñu sa bëri xëy ñu la ko di la ko di waaj na ñu la ko ñu la ko bind dem ñu leen bu ñu dal ñu la ñu la ñu dal ci taw ñu ko ñu la nak dal ñu ñu nak ñu ko yow ko dana ñu nak bu dana nak dañ leen ci wax bu ko ñu la ñu la yàlla wala ma dal ñu la fa ñu ci wax na ñu la yàlla ñu yàlla ñu ñu nak مثلا من يعلم من يرقي وجينا بكلمة بدعاء كلهم مثل من يعلم فأعوذ مثلا من كلام وتتقل على مناتهم جرام كلام يدين من هذه الخدمة من القبيلة ليرقي من يرقي فلهم يرقي بعد صلاة الله بل بدي يقول من يرقي من يرقي بل هذا يرقي يرقي قال من يرقي لهل هل يرقي هل علمت الله قميا ما تعرفون لم يندف بيوسف يرقي لا قميا من يندف بيوسف da ngeen koy dóor kum lakk ci yeneen dóor ak da ngeen koy jaay waa ci ñu ndakam yaa ngi ay ñu ndakam da yaa ngi ba nga xam ne bàyyam tàkkan ko di ko defee ci ñu dóor wax ñu ñëw dinañ ñu dóor wax moom ñu dóor gis am ko bële jaay la ñu ñëw ñu te loolu xam nga ni soit ñu ñu xaar ñu ñaan ko ay ñu tamit yow am na ñu ñu ñëw ko ñu ko ndax yow ñu ko xala mu wax ne ana man ñu ma yow ko loolu ñu ñaan ñu ko waaw daal di am mbokk sama xam nga ne daal ci wàllu yàlla alayhi wa sallam illa wala tam yàlla ma nga tax ci borom ak yàlla wala ci tam mu borom daa ñu ko yàlla daa ñu ko la tànk ci yàlla ci yàlla xaaru ñu am ko ta daa ñu yàlla la xada ko ta daa gëm nga ne yàlla dama ñu ko ko ko ma ka ko mun la xati ñu di yàlla ñu ko yàlla la tan ñu ko rek yàlla la gënal ñu ñu ñu ñu rek dafa war xaaram mu am ne laa ko sey ba ñu rek yedde alaykum jeen alaykum sey yo ko ñu ñu ta dañ ko yàqul daal dana daal yàlla nag ñu yàlla yàlla wala mu aram waaye ñu ñëwaat ñu yàlla ñu yàlla mu yàlla ñu sama bàyyi ñu ko sa bàyyi yow nga ci maxa gisatu dara mu ngi leen di ko ko dem leen am ñu bu gën a am ñu moom bu ñu ko waxee yàlla ñu ngi ñu yàlla yàlla ak yàlla ñu ngi waa mu ngi ñu ñu ñu ñu waaw ko tam leen ko ala ñu ak yi ci kanam bàyyi ko rek yaa ngi ñu ñu ko ko yaa ngi waa do ñu ko ñu ak ñu ñu ko ak ñu ñu ñu ngi ko ñoom ñëpp ñu ngi ñu ko ko fekk ñu ñu leen dem wala maa ko fere tiitam yéen ñëwee alhamdulilah ñu dëkk ñëw ba nga xamee ne yow daa nga ne man maa ngi boo ñu doon deret ma waaw ñu koy yëpp ma deret deret deret yaa ngi tax a dund ji man ñu koy yëpp ñu ma koy jàkkaloo ñu ñu maa koy yëpp waaw moom ba yaa ngi dal di ko rek waaw di dëkk la wax yow ñu ci bañ a waaye léegi ñu ñu ko doon sax léegi ñu doon laaj ñu yàq ak ñu ci laaj di doon di dëkk ba mu jàngee ndax ñu xaw rek alors affaire mbaay ñu ñu naka man ndax ay jiwu gën a bañ réew ma tax a yëg ma def bu nekk sa yëg ma tax a ñëw sëñ bi dañoo am des des fois mu la daan bëri bëri ñu bëri bëri ak ñaar bëri bëri ji man su tax ko su ma ko waxee ñu dafay sànn ma ne tax a yëg ma tax a ñëw rek booba mu ngi laaj yàlla mu ma xëy te xam naa bu kenn ci ak ñoom ñu di yëg waaye ñu ne sa laay ñu ñëw yàlla ci nekk ak sa yaw dañu ko laaj ko ak ñu nekk léegi mooy daal xam ñu rek jóg rek ñu ne ko laaj jóg ñu ko ñu rek yow ba ko te loolu sama fan la ñu ko jàngul nag bokkul nag wala mën naa am jaa ak dikkee ak dëkkee ay dëkk yu dëkk yu war a am mbubb ma am xaw mu sax dikkoon ak ay jiw yi te kan yàqoo ba parce que dafa mujj ba kiran yaa ngi gisee naka lañ dugg nii ba rek tamit di kan baayam ba yéen ñu ci fekkoon te fi ma xam ne anak xaalam wax alam akul awaku moom lakk mu yàlla ay jiw yàlla ka mën alam dana ma xam ne ay yàlla ma laata alam moom la xam tam bu la xam naa dina xam naa yàlla mu xam ne yaa ngi dund xaaral ñu yaa baax na yaa baax na sax bal na ñu ñu ko gën a bakkaar mu rek ina na kan ku na ne ko ñu faati na deew may ñu na ko ñu diñu ñu rek yor baay na ñu dañ ñu yalla da ñu bakkaar de xaaral mu ne taw ba sax ko xam na bal la ko ñu yaa ko do ko ñu ina ko ñu ñu na ko ñu ay ñu ñu yaa te ñu ara ñu ñu ñu ñu ñu mu la ñu ñu yaa ñu ko ñu ko ñu ñu ñu ñu mu ne ci jàng ñu ñu bay yo ko ñu ko ñu ñu ñaan ñu ci jox yalla na alhamdulillah léegi na ñu ñu ko ma nga xam ne léegi ba mu ko ko ko ngi ci dund rek ñu la ñu wax nag waaw fa juróom ñaar ci gëlëm ko defoon ba daal seen njaboot waaye ñu nekk ci ñu la yow ko daal ñu xëy nag dañ la ñu fa yëpp dinaa leen ku ko doon bi day jaawu la ak jaawu moo ci jaawu mu téeméeri waaye bi teel ñu magal ñu yànd ak juróom-ñetti junni ci jaam yoo xam ne moo leen moom juróom-ñetti junni ci ñeenti junni ci ko yoram ñeenti junni ci jamono xale bi Misra ak Mali yëpp daf mës mës mës mës mës na dañuy ko ñu jël daal te yaa ngi wan ngëm yi boo bare ngay defal ndax adduna mu ko gi da nga xam ne yàqoo ko gis nañu ko rek jigéen ñi ko wàccal dafa sa tànk da bàyyi ñëw yow ko wàccal dafa tànkam Yaqoob léegi wàcc dafa tànkam ak fukki doomu dañuy ànd ak moom vraiment dafa doon dañuy dafa yaakaar ne dañuy ñëw ba waaw bu fàtte léegi dem dugub ak wàllu nawet daanaka ne ku ci ñu ko tàmpal ci ñu ci yaram mu daal di toog toogoo bàyyi ci ñu war ñu war toogoo yaakaar ci ñu war waxaana ko wax ñaar danañ ko def ko xaraf danañ ak misra misra incha allah dem toog na yàlla ak ñu ngi ñu ngi ñu te dugg leen misra ak ko bëri rek ne bàyyi ñu ñeenti junni jaam yi ñoo ñoo ñor ñeenti junni jaam ci sama càmmoñ ñëpp maa leen moom ñëpp ba leen maa leen doon di kontaan di ko kontaan di ko ñëw di ko yore ñu ne ngeen yóbbu ko rek moom mu ne bare juróom-ñetti junni ba tey ngir gis yaakaar naa yàlla di ba ñu def sa tool bi moom yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu ngeen toog ci loolu dana gare ñu bari waa baa ko ñu ko yàlla yoon ñaari baay ma la jaar bokkal ko tan rek loolu ñu ko ci bëggal ci bëggal ci bëggal donc baayam yëpp daal ñu ko ci kanamam waaye mu ngi laajal itam wàcc ci biir ci kanamam de. waaw boo xaaral ko moom moom la ko yaa ko ci yow baaxee. waaw tamit yow saa yu bëgg waaye muy kii bi jëm xam nga ci jëf. bu ne bàyyi wër yëpp la de waaye xaw ma dee ak jaana waala daf na ko rab yi xam xam naa xam naa yu dëgg de mu ne yàlla dëgg na sama biir bi. waxalaat ko na te yàlla na mu jëlee ci man dina xëy na mu jëlee ci man mu ne tudd na kenn xatu la mu ne yàlla defal na mu baax ba mu jëlee ci xatu la waxut ba mu jëlee ci kenn ndax bu taxawee ma ko yëngu ndax kenn bañ ma ko dugaloon waaye tax na moom bii dugg ba ci loolu moo tax mu dugg ko mu ne yàlla kanam dama ko daa xam ne gën naa ci kafe ba jaay ko dugg ñu ko ci ñoom ba ñu ko di jëri ñu bàyyi la ma saxar ba mu bu yàqee ko taa ñu ko daane ba ñu ñu sama daa ñu ko jaay ñu ko seen mbokk ko dara bi ko bàyyi mu la ci ko ay ñëw la ko dama taa du ko ñu na ko ñu ma ay ñu ay xam ay ñu ko ala ci ma ay ay ñu ko ñu mbokk ñu na ko ñu dañu ko ñu dañu def mu xey di leen mu may di leen mu may mënu ma leen ko wax ndax ñu ko dañ daan tànn ni ku dul mu ne ab jàmm rek moom ñu ko léegi yéen loolu nga xam ne jàmm rek la woon tey moom moom nit rek di yéen ñëw nag ñu xam ne maa ngi bokk baay du ma jaam yàqoo baa ma ngi ci saa saa maam Ibrahima ko maam du ma jaam te ngeen ñu may tey waaw man ñu may ko ren plaasi waaw loolu mooy waaw dafa téye su bëre mu daal di dugal baayam nag waaw ko woon nguuram daal ci man la ñu kay boo xam ne kenn xam ko ku bët jot lépp kay rek bu ne ko woon wala mu mbay ci kay mos na maa bind leetal sax ma xam ne yaa ngi àddina bu ne ko sama dafa koy bind rek bind naa la ne ne sama la bind rek muy numéro kër bi dama ko lii dañ koy dalal bu ne ko seen taale ak nañ la maanaam ñu sala dafa leen ma ab mbaar rek man de waaw du toll foofu ma dëkk ko loolu benn moom waaw yéen ko mbaaral ko foofu nag boole ko waaw sa dëkkaa jabaram ni ko takk foofu bay ak ko dina dina waaw gannaaw bu ma ngeen ñaar fukki rek ñett ci la war ñu waaw mu dañ yaram de la ko daw الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله bala xam nga ne ñu yow foofu bàyyam fekk si na ko gannaaw ba bàyyam dee ba bàyyam bi dee jël ko gone na ko xanam yóbbu ko faam suur ko jël ko ci bàyyam ci saaxa Yuusufa ko xanam boppam ba yóbbu suur ko fa bàyyam ci saaxa jëlu fi am Israël sax gannaaw bàyyam ñaar fukki at ak ñett ba nga xam ne ñu xam ne téeméeri at ak ñaar fukki nag mu xam ne itam nguuram àdduna dund dund du sax mu daal di topp nag jëm ci nguur gi nga xam ne dafay sax mu daal di topp jëm ci àllaaxira rek bëgg na léegi nguur gi dëkkatu mu daal di ne rabbi yow borom sama at ata itam ñu jox nga ma ñu ne mu ki leen nguur yow sama borom jox nga ma wax ñu nguur rek waaye jox nga ma lenn nguur nguur ñu dala amoon waa lam tani xamal nga ma min taawiri la aji si pirim ngeen ko xamal nga ma itam pirim ngeen ko faatira samawaati yow aji bind asmaani juróom yaar walar la suufi juróom yaar anta yow waluru yaa aji nangoo mbir sama si dunya jaag na wala xew daa xalaat rek taw sani yàlla nga faat ma musliman mi aji jébbalu ñu yàlla waale ñu yàlla ngay yëgal ma bi taali na jëwe ñëw ne ci samay baay mu ñaan nag yàlla yàlla ko yàlla faat mu di julli te faat ko te yëgal ko jee dara jooy taali ñu ne nga xam ne ñu di baayam bi mu waxee loolu jëf baay la jotee daal di jooy seen yaa fa ñaar fukk la dund fekk na nag mu ne bi ñuy jaar fekk na mu bàyyi nguur gi ba nga xam ne ne sëy naa sa lexaa yàlla def nag la sa lexaa ci xolam nag bu ëpp ba nga xam ne rek moom mën a tudda teqaliko sa lexaa day jënd guddi sa lexaa itam bëgg itam ñëw bëgg gën bëgg lu suba àggale ko ci mbëggale yàlla bëggatul moom it lu mooy yàlla am na yàlla jënd guddi yusufa sàkk ko bëgg te dem moom moom mu dem ni dafay julli ji rek muy daw di bañ yusufa ni ko xëcc ba xottu bu dem sa lexaa ne ko su fekkee xotti woon naa sa bu njëkk ngir bëgg la yow it tey xotti nga sama bu bëre ngir bëggul mu ne ko sole xaar yi wala mu ne ko ba mu mosee mbëgg la yàlla bëggatuma dara yàlla xam nag afrafin ak meesa ñu ne moom la Yusufa dénk Ibrahim afrafin mooy Ibrahim moom la dénk nguuru Misra moom mu dem ka wax lu dëkk bi ñuy wax Saloum te wetu nguuru Misra taxu fa nag dara nguur ga ba yàlla moom ko ba ko yàlla moomee ñu ko ci woon ne nañ ko suul ci biir Misra ñu suul ko ci biir Misra naataange bi yëpp féete ci Misra bitti ba d'accord ñu ñu ko ci woon loolu daal duñ ko nangu ñu ne bon nag bu ñëwaat ñëwee nañ ko suul ci biir ñu ñëwaat ñëwee ñu suul ko ci biir wet bu ñu ko suulee ci biir wet wàll boobu yëpp naataange dañu ko yóbboo ca wala baadi yëgoo wetu baadi yëgoo ñooñu ne ci naataange ñu nekk ci d'accord gannaaw ba nag ñu ñu mën demee nañ seet rek ba place boo xam ne dana nekk ci suñu diggante ñun ñëpp ñu am ci ñu def ñu koy jëfandikoo ñu def loolu ñu xaar ca digg ñu dugg ndar ca digg ndar waaw ñu def waxale nag loo xam ne ñu ngi ko defar ci bajuru xaal yi de marmar. waaw war nga ko war nga ñëw waaw ñu def ko ci digg ñu dugg ndar rek ba nga xamee ne loolu am na naataange jagal ñu nafaree Misra wàll yëpp xemoo ci rek fekk na nag moom Yuusufa fi baayam bàyyi ko Kanaan ànd ak njabootam ñëpp ñu di juróom ñaar fukk ñoom fekk fi Yusufa ak ci yonent yàlla Muusa génne bañ Israëla Misra di leen delloo saam ñeenti téeméeri at moo dox seen diggante bi ñuy dem juróom ñaar fukk ñu dem njaboot ga yëpp gannaaw ñeenti téeméeri at yi di leen Muusa di génne juróom benn téeméeri junne lañu ak juróom ñaar fukki junne ba Muusa bëggee génn nag Jibril na ko yow su fa dénkaane woon ne booy génn Misra bu ko fi bàyyi de na nga yóbbaale ba melam loolu ko sundi yóbbaale ko yonente yàlla Muusa ne ku xam ba melam yow su fu nekk ñu ne kenn xamu ko ñu laaj ko ñu ne ak jigéen nga fale war na koo xam Muusa ñëw seet si jigéen de fekk am na juróom ñeenti téeméeri at màggat na ba firma xana mu ne ko man day xam naa ba melam yow su fu nekk waaye balaa ma la ko wan ci ay fart da nga ñaan yàlla delloo ma may ndaw si jigéen si toll ci fukki at ak juróom ñaar te dundaat mi day yëngu dundoon ñu faa ñaanal ko loolu dundaat na juróom ñeenti téeméer at muy junni ak juróom ñetti téeméer at ndaw sa nag wan ne ba mel ni subaa ngi ci biir ñu mosoo gi kii dex bi waaye suñ ma ko doon ndax gi daal moo leen fu mu toll mu faa daal di far xatam wa dóor ko nuuru mu far mu far ñu dem pour ndaw si ne ko fii lañ ko suuroon mu mu faa gas jot doo xam ne woon defal Yuusufa nag waaw mu génne ko waaw yóbbuwaale ko Sàmm moo tax ba ngeen Yuusufa waaw nekk Sàmm léegi Yuusufa nag ñaan na dee ñu ne dee la ñaan ñu ne dee dee dafa ñaan rek bu dee di ñëw yàlla na dee ci lislaam te yàlla na ko yàlla yëgal ci dara ci ñuy le ndax yeneen ma ne bu kenn ci yéen ñaan dee bu fekkee mën laa bañ a ñaan dee neel yàlla yàlla nga may dundal seen dunda gën ci man bés bu dee gën ci man yàlla nga ma rey Yuusufa ñaan dee dafa ñaan rek dee ci maqamab lislaam ak salaaho ñu ne lu tax muy ñaan salaaho te mooy daraja ji gën a ndawe mu ne na biyu la siddiqina wa shuhada wa saalihiina martaba bi gën a féete suuf waaw mel na ne moom la ñaan def na ko ngir suufeel darajaam ñun yàlla dañuy suufeel seen bopp moo tax maqamab bu gën a kawe la bëgg waaye bu gën a tuuti waaw moom la ñaan waaye fekk na baatab saalihu waaw mën la féete suuf rek mooy daraja yu njëkk waaye soo xam ne nekk nga saaliwul bañ nañu nekk say itam nekk bi nga nekkoon saaliwul xam nga bañul soo wéyee ba nekk si biir itam nekk bi nga nekkoon saaliwul dañul soo wéyee ba nekk nabi itam ba tey saaliwul la sax sax na dem bi yaaw sax gënuñ ci maqaamam falaaw mu ngi noonu si ñun surtout gannaaw boobu demee ba ci xutbaan yëpp la wax naa terewul yaa xam li nga xam maqaamam pour bu ñu jëfeewul mu ne Yusufa ñaan na mu ne ko fan yii yàlla nga faat ma muslimun ne aji jébbalu maanaam mu jeex tàkk ci yàlla dootu bëgg dara lu dul yàlla waaye xëy na tey ma yëgal ma bi saa yi ne ci wàllu ñu naan mooy ñi nga xam ne dañoo def ci yàlla de fanaaw baqaaw la boole ñaan ñu nekk ni ku jébbalu boromam ba gisul dara lu dul boromam na def itam ci yàlla ba nga xam ne dana mën a waa taxaw jaxaq yi njaam naka nga xam ne ma la ko waral mooy ma xamam faraaw kon nag dafa ñaan ne na dee di koo xam ne ku xam yàlla ku mat la yonent ne sallallahu alayhi wasallam ku bëgg dajeeg yàlla ci dee yàlla bëgg dajeeg yow ku bañ dajeeg yàlla yàlla bañ dajeeg yow saaba yi ne ko yonent bi ñun ñëpp dañuy ci dee kon nag kenn ci ñun bëgg la dajeeg yàlla yonent ne loolu du maanaam jullit boo xam ne dafay topp yàlla su dara gisul lu ak dee am jege na yàlla daf koy waram wan nguuram nga ca aljanna lam fa soo am lépp su ko gisee dootu bëgg a toog benn minute sax ci àdduna su ko defee rek mu daal di bëgg a dajeeg yàlla bu waaye yàlla bëgg a dajeeg moom noonu la su fekkee ni xeefar la itam waaw su bëggee dee yàlla dana ko wan mbugal moom jëm bañ ndax xam ne su dee dem ci dundee waaw su ko defee ba mu bëgg la dajeeg yàlla yàlla itam waaye du bëgg a dajeeg moom rek julit fii ci àdduna luñ ci mën a nekkee ci kafe la nekk su fekkee ne ni dee na génn na kafe bi bu dee am jege nag danañ ko wan fan jëm ba mu xam ne ci kafe la nekk dootu bëgg na génn kafe rek ndigal yooyu si saa yow yow di dañ waxoon xéefar yi makka ne leen laaj leen Muhammad lu toxale yaa xawba mu jógee Kanaan ci saam dem Misra ak lii fële fiyee si wër ci seen xam-xam yi jëm kóot la bokk yonent sallallahu alayhi wa sallam nekk yéen xalaat yi si nga jëm leen jëm ba ca nit ci yenn faar daalika loolu ñu tuddoon ci mbiram Yuusufa min am daawal xaw yi ak nekk lam gis dafay fàdd loolu day fàdd wane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak turu yonent bi mu ne ñu doon ñu ko yëlee tëgum ci yow man yàlla maa ko wàcc ci yow waaye xam la ko woon rek wama kunta mithla yow nga dañu fa ñoom is ak ñoo dañu dagoo am rayu mbir teen de di saxal Yuusufa waaye mu ko ñoom yam ko noonu dañuy saxal ñaar Yuusufa de fekk yow la ko woon daanu fokk nag loolu man yàlla maa la ko xamal de sax na fekk sa yi waaye ci tegtal yonent yi gën a màgg waaye ci la ko sa Yuusufa bokk de ndax ci xam-xam yi dama xóot ci ñoom jara bokkoon ñu bari di seeni tawra sax waaw xamuñu woon lu tax ban Israayla mujj Misra leen yóbbu faam xamuñ ko de di laay saari wàccee nag nekk ñu xisa Yuusufa ñu ñoon gën di sumul ñoo alu kitaab sax xam nañ ci loo xam ne xamuñ ko woon moo tax ñu ci bari waaw saar yi tax na ñu dëgg waaw ñu tëlifit ñoom ci seen ak réer rek waaye xam nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent dëgg rek mu yàlla nag li ci xisa Yuusufa nag mbokkam yi pexe yu bari ñu ko doon fexeel ci njël yoon wóor nañ ko fan nañ ko ci teen pour bëgg doole yi jaay nañ ko te rewut ñoom ñëpp gannaaw ba mu gënañ bi ay yonent ci wax ji gën a siiw léegi nag ñu mën a dëpp rek te yonent maxsoom la mooy ci mun la def bakkaat mun la ko witte kon nag dañ jëpp yonent bi ak gannaaw yonent bi yëpp ci xam yonent maxsoom la kon nañu mën a dëppalee jëf yi bokk yi ci sëyi de ak maqamal ak yonent te yonent maxsum la sariat yi dañoo wuute lii waral lii weddi kabir bu nekk kabir bu ñëw rek bu tënk ci mbiram ñu ko jëkkoon dafay soppali su Muusaa ñëwee mbiram nga xeexas ko ci mbiram Ibrahim te moom ku fa soppali si la ngay dal di wax rek ne Muusaa juum na ba Muusaa ñëwee wàcc yoonu Muusaa dañ defe ne juum na ba Muhammad ñëwee waaw wàcc yoonu Insa ña demoon Insa waaw te xamuñ ne kabir bu nekk dafay soppali waaw dafa wan ne Muhammad bi mu kon nag ci sa kabir bi fasoo ñëw ak Musa kabir rey na bakkan xotti na gaal goo xam ne dañ ko caa dugal te laajuñ ko tey te ñëw ci sariyaatu sariyaatu Musa ba ci suñ sariyaatu ñun xaraam na waaye ci sariyaatu kabir booba dagal na bokk Yuusufa yi itam sariyaatu bu xaraamal jëf yi nga xam ne moom lañ doon jëf ba mu wóor leen ne lii du xaraam la booba amul de dañ koy def ci seen soreanatu xaraam yi ñu xaraam yi suñ soreanatu gannaaw ba nag nekk nañ ci ay yonent de yoo xam ne ñu ngi dem rek nañ lépp luñ mos a def nag nga xam ne mooy baax ak yonent yi ma soog lañ waaye dañuy gis seen bàkkaar bi rek ci tuub Adama waa gis na bàkkaaram rek ci tuub doon na ñaar téeméeri at waa yàlla baal ko Daawuda noonu Musa noonu waaw Ibrahim noonu Isa noonu Muhammad noonu waaw kenn ci ñoom mos da mooy waaye nag jëf yi nga xam ne tabbi woon ci ñoom ci ndigal leen te dëppoo moom ñu ngi ko la loolu lañ gis ni seen i bàkkaar noonu wama sorona si dég gën di bëri nit wala xarasta le teer nga ci seen a gëm ñu ne ñu ñu ngay gëm de li am nag mooy kaa jëf mën nga tax kenn gëm yàllaay gëmal ku mu bëgg koo xam ne yàlla bëgg na la moo bind njub ak jëm ci sa xol ku mu bëgg wacc la lu kaay te ni sët sët du tax nga gëm wama tafaluun laaj ci leen alay ci jotal ak alquran mun ajrin yaay am na laaj ñu leen benn fay ñu nga def na alquran ilaa fikru ngalal waa la li aalamin ñoom dina ñu koy dina rek wa kaayin bëri na min ayatin kaafir bi tegtaleel yéetal yàlla ci samawaati bi daa yi nekk ci asamaan walar li ak suuf yamurroona alayha danañu jamoom moom waxum te ñoom mool yoona way dëdd la ñu woon ay ko wax bu rëy yàlla bëri na ay kaafeefam yoo xam ne yu mag la yu fépp yéen a jamoom moom ci asamaan ak suuf te du ngeen gëm kaayteef yàlla yi nag yi ci gën a màgg mooy yonent yi ak wàllu yi wama yomunu gëmut seen gëm la bëri seen di bàyyi ci yàlla illaa yow ndara nit ñi ñoom musrik ko ngay bokkaare yi rek ñu bëri suñ wootee gëm yàlla it ne nga koy boole bokkaare yàlla rek di jaana xelam loolu wàcc na bi refa yi dañ laa wax ci ak naa labbayka royu nañ la yow yàlla amula bokkaale lu may bokkaale boo xam ne yow yaa ko moom te moom moomul la da nga war a wax labbayka rek fa am nu dafa am lu ndax dañu wóolu am taati yahum budul ka lañ leen xaasiyatum mbugal ñu ne ko bilaay li ko jëm leen yàlla moom ñoom ñu ngi fàttal yàlla bokkaayal ndax dañoo wóolu leen mbugal di bàyyi koo ci yàlla wàcc ci seen kaw aw taati yahum te ke dikkam leen saati def seen ci ndax ko seen ci bette de wóolu ka leen laa saw na xam ci ñu wax ko dikkam de kul waxal yow Muhammad xaasi ñu la yoon fadiri ya moo di yoon sama de ak moom mooy dana ma woote ila laay jëm ci diine yàlla ala basiratin ànd ak lay ana man wa man tabaani ak topp na ñu rek wa ma usbaan laa ci diine sell yàlla wa ma ni jëm nañu ñu ci mu bokk joxe bokkale ñu rek waxal yow yonent ñu ne man sama diine nii sama diine mooy lan mooy woote jëm ci yàlla rek ànd ak lay weex tal ay rek yonent ci diine yi Ibrahima la nekkoon Ibrahima moo xutbu tawhid yonent yëpp moo ci xoote jëm ci zaatu ñii yonent dañuy xoote jëm ci jaxin yi ñii yonent xoote jëm ci sifaat yi mooy melo yàlla yi Ibrahima moom xoote jëm fenn mooy ci jëm yàlla jë moo tax yàlla wax ne waa xëy naa idekaani tabi mi dëkk Ibrahima moo tax yàlla ne yonent yi na topp diine Ibrahima mi nga xam ne moo tudd tawhid nga xam ne mos a sakkal yàlla bokkaay rek pour xoote jëm ci jeexit yàlla yi mooy ñi xamee yàlla ci mbindeef yi mbindeef yi luñ bind la lépp luñ bind jëf la jëf ji nga xam ko jëf ko ko jëf mooy yàlla ñii di woote jëm ci melo yàlla yi mooy melo maani yi am tari sant al qudratu wal iradatu wal almulaatu wa sam wal kalaam wal basar wa sam wal basar wal kalaam waaw yooyu melo la yoo xam ne yàlla rek ko melloo ku woote nag jëm ci jëm yàlla ja ci boppam kooku nag mooy Ibrahima moom la yonent yàlla Muhammad topp rek moo tax mu ne maa ngi woote jëm ci yàlla te ànd ak sama lay waxtaan man ak képp ku ma topp rek tax na ba woote jëm ci yàlla war war la ci jullit ñi rek rawatina nag képp ku yàlla jox dara jàmm yonent na ne yàlla dimbal ci sa loxo benn waaye rek mu dugg ci lislaam moo gën mbooleem gëlëm yi gëlëm yi yàlla sàkk ci àdduna wala moo gën mbooleem ñu jant bi fii mooy mbooleem àdduna wa ma arsalnaa min qablika min qablika jëm njëkk fa illaa rijaalun dara góor yow waaye ñun def na wala yëg-yëg jëm ci ñoom ñu naan Muhammad doomu Adama rek la war laa doon yonent yonent yi dafa ñëw ñëpp ay nit lañu woon de yàlla bu tuddee yéen di malaaka ay nit la yéen ñu woon ndax ay nit dafa nekk. ñu naan alquran ci ñun dëkk njënd yi yonent bu yàlla ma sa yónni itam ci dëkk yu mag yi la koy yónni waaye dëkk xale yi yàlla ma tuddee yónni ak yonent ndax ñi ci njënd yi ñooy gën a mat ñooy gën a xam ñooy gën a kawe ñooy gën a waaw. dëppoo nit ñi ñi ci xale yi ñu xam te duñu nam waree ñu xam it jëflante nit ñi nam waree moo tax dëkk ci baadiye luy sud la dëkk njënd yi ci la yàlla daa yónni ay yonent ñu ne naka noonu itam xalifa yàlla itam yàlla du ko tànnoon mukk ci dëkk xale yi waaye ci njënd rek la ñuy dëkk dafa la la séeroo ndax dañoo seetu ñoom ñoom ñaata si dara gisu loolu si loolu dañ seet te ko taxee na koy na jaa si dëkk dëkk na ñu ngi ñoo ñu xam ñu waaye nekk lañ jëm njëkk seen rek xanaa dañoo seet ñu leen jëkkoon ñu leen jëkkoon weddi woon nañ seen yonent bañ ko weddi woon nañ jële alaku rek ñoom ñëpp alaku nañ ñii danañ alaku nag ñu jëkk ñu alaku woon de wala daaru laaxira ci gërëm alaaxira ci aljanna waaye moo gën ñu dëkk ñu ñu tax ragal ñu yàlla afala tax dana ñu tëral ngeen xel de dëgëm yàlla yónni woon na ay góor ñaa gën ko ñaa weddi ko ndigal na yéex a wàcc ci ña ko weddi ndigal la yéex a dikk ci ñi ko ñu leen ñu leen gëm hatta hatta yastawaasa bannaabu rusulu yonentu ya wa bannu te loolu am na naka ñoom xat ci booba def na leen rek ba yonentu yi naabu sax ñun ndigal dootu ñëw ñu loolu ne seen kër yi weddi nañ leen jaaram dikkal leen na sama ndigal suñu rek dañu ne jiitu lu mu sonn mën na kaw ñu toog wala yu rafetlu ñu dee su delloo baax ñu am dugal suñu am na xaw yu ci ñu ak ñu diggee ñu dee kattan ñu dee bokkaay rek ndigalam yàlla ci ñu rek dara mën la dox leen digal rek xat ci bureau yaa def na leen di xat kata bureau loolu mustahil la yonent yi foog ne dañ ko nar loolu mustahil la moo tax de bu muy firi ba yonent ya foog ne daal ndigal la danañu yëf ba seen xeet ya far leen yàddina dañ doon nar loolu mooy am na laqad kaana walaay nekk na fii asatihim ci solo seen ñoom yonent yi xebratum xaram li ñuy def daal ñaar warum kan kan de képp ko am xel fi nga nag yow sa yonent yi jëkk yi da nga ci mën a waadoo rek maa kaana nekkut ci daal Quran ak yu fan bi solo istara fas dem na ko rek xam ngeen ne alquran lii ñun boo xam ne ñu ko ko ci wàllu boppam rek déedéet yàlla ko wàccee mu bàyyi ko ci moom wala suñu fi nekk parce que xel la fii nekk nañu ci dëggal ak ndaala bay na yàgg aji nekk la jëm njëkkam de téere yi ko jëkkoon yëpp lañ dikkoon alquran dëgg na ko rek rek waaw wata fii la kulli seen tey digal ak lépp la waru doon te liñ dikk te jëm réer waraama tam ko yërmaan nga xam ne ñu la am réer ñu ñu gëm lépp